wax Ramadan Moubarak sur la 7TV et comme on le fait à chaque année dañuy dellu si waat ci li nga xamante ne moom mooy seen talk show préféré boobu nag moom mooy Ramadan show ñu fas ko amal du lundi au vendredi euh, fii nii ak man mais samedi bi aussi yeneen équipe euh, yaa euh, day ñëw pour accompagner leen indil leen ay waxtaan indil leen aussi actualité et voilà cette fois-ci j'ai le plaisir de partager le plateau. avec Tabara Tabara maa ngi lay nuyu di la dalal di la wax euh, Ramadan Moubarak merci beaucoup Adja Astou le plaisir est partagé mbégte ji euh, bokk ak yow bi également avec tous les invités qui sont avec nous euh, là ce soir mm-hmm. euh, di ñaanal téléspectateurs yi weeru kooru en espérant qu'ils ont mm-hmm. passé un très bon dogu et qu'on passera également une très bonne soirée ah a toog aujourd'hui pour ce premier numéro sànq ñu ngi leen koy mu koy wax ci ki nga xamante ne moom mooy la grande journaliste la grande dame et oui man dama koy tous les jours kooku nag moom mooy may Maïmouna Ndour Faye ndaxte xam naa ni namoon ngeen ko surtout les invités de MNF ou l'invité de MNF elle est sur ce plateau avec nous Maïmouna ñu ngi lay nuyu di la dalal di la wax ni que namoon nañ la. maa raw euh, Adja Tabara merci euh, ci dalal bi ñu fas yéene rek euh, sumb soobu ci un mois boo xam ne dinañu entretenir nos téléspectateurs. Euh, de programmes euh, fructueux très enrichissants et puis ñuy ñaan rek euh, ni ñu koy démarrer ci jàmm ñu yeggalee ko ci jàmm te cat ba ñoo dab ndax kat <laughs> catu weeru koor daf ñu yem. keroog dañoo toog ko <laughs> <laughs> daal ku weeru koor bi du ñu am problème bu justice. waaw ouais, ah, ah. j'espère ah. j'espère en tout cas depuis des années mi topp et on que daaw rek ca lay yem alors Maïmouna comme ni ñu koy. dès du ah, lundi au mercredi da ngay teew ci plateau bi ah, ànd ak ñun ah, ak say gan tey ñan ngay dalal. waaw tey nag damay dalal d'abord ma préciser mhm. ne dina am ay journaliste ak ay xeltukat mhm. ci wàllu yoon yoo xam ne dinañu accompagner ki nga xam ne moom mooy Mansour Sissi Euh, di journaliste euh, di analyste politique dinañu accompagner euh, tout au long de ce mois de Ramadan euh, Amadou Diouf moom il fait partie de l'équipe et nous accompagne plus de depuis plus de deux ans moom tamit euh, di journaliste analyste politique di dir pub site bi nga xam ne mooy amul nëbbo point com dinañu accompagner Euh, ki nga xam ne tamit moom mooy El Amat Thiam euh, di enseignant chercheur euh, juriste moom tamit na gën ni daaw mu ñuy accompagner donc ñoom ils sont fixes ils vont nous accompagner du lundi au mercredi waaye saa bu nekk nag chaque jour dina dinañu dalal ay invité wala benn invité tey nag ma am yéene ma am plaisir dalal ñaari invité Euh, ku njëkk ki euh, nekk ci sama ndeyjoor Ngouda Mboup la euh, Ngouda Mboup est enseignant chercheur à l'université Cheikh Anta de Dakar il est le président de la haute autorité de régulation du parti PASTEF mu doon xam ne nag def na incursion dans la vie publique et politique sénégalaise keneen ki nag mu di Ibrahima ndoy Ibrahima Ndoye il est ministre conseiller à la présidence euh, de la République euh, du Sénégal il est également euh, vice-président du conseil départemental de Thiès mi ngi noonu mbokk téléspectateurs yi ñooñu la ñuy fas yéene àndal ci li nga xamante ne moom mooy euh, seen première partie euh, Ramadan Show di leen fàttali rek li nga xamante ne moom mooy deuxième partie bi euh, dina ñëw su kanamee. tout à fait Diassou dans la deuxième partie de votre magazine Ramadan Show vous aurez l'occasion di ci ànd toujours ak yow. Mm-hmm. mais cette fois-ci avec Sister Maria qui prendra ma place. Mm-hmm. également de la partie nos chroniqueurs seront là Adjimas Mara mm-hmm. mais aussi Pape Ndiaye pour un peu plus d'ambiance et de musique si je peux dire ça. faire comme ça. D'accord donc mi ngi noonu sans plus tarder amis téléspectateurs. ñu daal di wéytee di àndaat yow ci mooy Ramadan sant yàlla beneen yoon bi ñu yàlla dimbalee daaw ñu bokk ci ñi doon gunge Maymuna ak toute l' équipe qui est toute l' équipe euh, virtuelle. ñi dañ santaat yàlla mi ñu mayaat ñu toogaat fii mm-hmm. la vraiment ci weeru koor wi encore di ñaan yàlla mu yàgg ñu may fekkee loolu ak tal di gërëm aussi euh, les éminents invités yu mag yi nga toog fi borom xam-xam yi ci mel ni le professeur Ngouda Mboup pour rectifier je suis pas un enseignant <laughs> mooy enseignant chercheur moi je suis un juriste consultant <laughs> spécialiste du contentieux des affaires c'est la faculté de droit mm-hmm. et maa gërëm aussi euh, Serigne Mansour journaliste écrit di gërëm aussi monsieur le ministre mm-hmm. euh, monsieur Ndoye voilà ñu ngi door a gisee ñaan diggante ah, téléphone mais ñu ngi door a gisante le décès a croisé nos chemins. Mm-hmm. voilà di gërëm sa chroniqueuse yi Adja su moom mu présenté madame maa ngi lay ziar bu baax mm-hmm. gërëm Maymuna kilifa gi nga xam ne dafa dafa dis loxo mm-hmm. voilà <laughs> <laughs> j'espère di ñaan yàlla aussi may ñu émission boo xam ne dina neex am dégg aussi am topp ci ñi déglu li ñuy xaar ci xam-xam ak ci defar mu ballee fi ci émission bi daal voilà je vous remercie. incha allah Ami ñu ngi lay jaajëfal bu baax monsieur le ministre euh, Ibrahima Ndoye yow aussi ñu ngi lay nuyu di la dalal euh, ci plateau Ramadan Show. merci beaucoup soxna Astou maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan comme ni ko sëñ euh, monsieur Thiam waxee tout heure. Mhm. na def ci bés bi ñu nekk tey mu nekk bésu xewal. weeru koor bu bari bari bari bari jàmm. dolli jàmm ci dëkk bi parce que dëkk bi quand am na jàmm mu dolli ci euh, yàlla def euh, li ñuy séddu ci xewal yépp ci koor gi yàlla defal ñu ko mu law law ci mbokk yi law ci malaat yi law ci ñi am soxla law ci citoyen sénégalais yépp la toute catégorie confondue di di nuyu ajaratu bi Eh, toog suñu wel ah. ajaratu tabara tabara xanaa lebu nga yow. waaw waaw sentir naa ko parce que ci ci bi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax day associé ci nuyu bi euh, nos frères qui sont là l'éminent euh, enseignant monsieur monsieur Mboup Ngouda Ngouda Mboup dinaa la laaj nag après lan nga bokk ak Ngouda bu bu Tivaouane qui vient de Aéré Lao <laughs> qui a c'est votre grand-père ah lui c'était euh, grand monsieur grand érudit qui accompagne El Hadj Malick Sy au niveau de de hmm. Tivaouane def naa era law la jóge finalement il a fini par être je crois bien muezzin hmm. doon aw de 1864 jusqu'à 1949 bi muy génnee àdduna donc euh, bàyyi lépp ñëw foofu daana def 4 kilomètres di wuti ndox pour jàppale El Hadj Malick Sy donc ah, ça veut dire que ni. xam na la euh, xam na sa <laughs> euh, lu lu am solo la. Euh, damay ñaan rek nga nga mel ni moom daal. amiin <laughs> li ci des mooy sëñ Mansour. sëñ mm. Mansour peut-être xëy na sax tey la ñuy door a daje ci plateau mm. xam nga man plateau yi dama koy daw. Mm. yéen borom xam-xam yu mel ni kuy dajeeg ñoom da ngay xaw a def ndànk tuuti. donc maa ngi ci profiter di la rendre di la rendre hommage. Mm-hmm. d'abord ci métier bi ñu bokk. waaw si naa ni loolu baax na ci. des fois nag mu def yooyu quoi yooyu nga xam ne duñ ko jàngale. waaye bon loolu yëpp c'est le charme aussi di métier et c'est ça aussi qui forge notre sénégalité c'est très important ay valeur la euh, defe naa ne li ñu boole moo gën a bëri téeméeri yoon li ñu xaajaale mais li ci am solo rek mooy benn ndam lay doon mooy Sénégal yàlla na Sénégal di gagné ci combat bi allahumma amin allahumma amin vraiment euh, lui on n'a pas je n'ai pas eu l'occasion mais fii laa ko jëkk cette tu l'as ko jëkkee je l'admire le cache franchement et je ah, c'est moi qui ai pris mon téléphone pour l'appeler mhm. pour wax ko yàlla na leen di yàggal yàlla na leen yàlla yàggal ci ci ci dëkk bi ñu mel ni yow ngeen di toog di partager seen xam-xam parce que ñun ay politiciens lañu mhm. dañuy mbëkkante rek di dóor wuti base donc ànd ak yooyu mais xam-xam yeeg spécialisé yi may mun a dugal nga ba ci loo xam ne nag tey moom <laughs> <laughs> voilà mu ngi loolu nga vraiment je vous remercie merci beaucoup jërëjëf de Monsieur le ministre. Alors, Adja, tout ce soir en plus euh, de Monsieur le ministre, on a le plaisir euh, d'avoir sur ce plateau Goul Mboup. Euh, on l'a déjà introduit, hein. <laughs> l'introduction a été très bien faite. Mais je rappelle les téléspectateurs juste que Gouno est enseigneur, chercheur à l'UCAD, mais aussi président de la Haute Autorité de Régulation du parti PASTEF, euh, di am mbégte ji la dalal sama mbokku ci waawoon bi di la nuyu bu baax di la la bienvenue sur le plateau de Ramatan Show. Euh, may am mbégte aussi di bokk ak plateau bi sama mbokk Tivaouane ma mbokk koñ mom euh, di am mbégte aussi di ñëw ci kër gi saa su ne di gërëm Maymuna di ndokkeel euh, suñu mbokk chrétiens yi ci koor gi mhm. di ndokkeel aussi musulman yi ñi nga xamante ni donc ñun ak ñoom ñoo bokk diine ci ñu féete mhm. waaye aussi di ndokkeel sénégalais yi nekk ci diaspora bi di massaw aussi ñi nga xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi ak ñu nekk ci prison yi et puis di aussi ñaanal di ñi nga xam ne wàññeeku nañ fi ma ci commencé par sama wéyjur bu jigéen ak su suma maam Ngouda Mboup bien sûr euh, di aussi am contenté di bokk ak euh, plateau bi ñoo xamante ni ay kàngam lañ ci li ñuy yëngu mais au-delà de ça je pense que euh, moment yu mel nii dafay baax que nit ñi di waxtaan je pense que Maymuna moom elle a trouvé la prouesse chaque ramadan léegi moom moo may génne. daaw dama ne woon du génn elle a tout fait pour génne ma benn émission rek laa def moom laa ko defaloon. voilà day moment yoo xamante ne man sax la plupart du temps damay bëgg toog du wax mais bon. comme réew mi nag daf ko laaj. il faut que ñu génn wax leeral waxtaan. suñu biir parce que damay làppale toujours ne l'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus. et consensus boobu noonu mooy tax ñuy créer des débats de pour tirer la Sénégal vers loo haut. di ñaan yàlla ñu jële fi njëriñ. amiin jërëjëf amiin amiin également de la partie ce soir à Diastou. Mhm. Euh, notre confrère Serigne Mansour ñu am mbégte vraiment partagé plateau bi ak yow. mais c'est naturellement di la nii di la ziar di la dalal ci plateau bi. mais merci c'est partagé soxna Tabara. may nuyu bu baax d'abord euh, le ministre conseil. monsieur Ibrahima Ndoye naa ñoo bokk suñu cees mhm. man Thiès laa jàngee Thiès laa amee bac. donc ma ci teg ki ma feggool sama càmmoñ le professeur Ngouda Bou <coughs> di nuyu bu baax aussi ki ma jàkkaar lool le juriste consultant Amath Thiam je pense ci moom sax laa waroon njëkkee gannaaw la le ministre conseiller sama jigéen soxna may mun a maa ngi lay nuyu bu baax a baax te li ma fi gis dafa dal sama xel waaw xam nga man dama gëm leadership féminin hmm. donc li ma fi gis wax dëgg na yàlla góor yóbbul la dara donc ma lay ñaanal balaa laylatul xadri nga yëkkati ko ba yëg ko ñun ñëpp tamit may nuyu aussi tamit Adja Astu moom defe naa ñoo bokk sant ma moom donc ma leen delloo kàddu gi jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di dalal ak jàmm sur le plateau sànq ñu ngi leen koy annoncé ki nga xamante ne mooy aussi le grand journaliste analyste politique kooku nag moom mooy suñu suñu xarit téléspectateur yëpp <laughs> mën na lan <laughs> ak ak ni ma la nammee woon moos. Amadou maa la gën a nam vraiment Papa Diambour nga def waay ñu ngi nii rek nam nañ la lay dalal ci plateau bi di la wax eh, Ramadan Moubarak aussi mais pareillement pareillement et puis du nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom laa fekk ci plateau bi mhm. donc euh, comme dama kii donc damay dabe mhm. bëgguma nekk di lim mais xam naa on aura l'occasion ci kanam di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di leen wax rek ne am nañ mbégte lool di ñaanal ñëpp euh, Euh, li nga xam ne moom mooy weeru kooru jàmm. allahumma amin allahumma amin alors euh, Maimouna Ndour tey ginnaaw euh, daal di delloo léeg-léeg nga les enjeux <laughs> merci beaucoup euh, Adja Assou ñuy fàttali rek balaa ñuy démarrer euh, benn information suba euh, général bu Dakar dina amal jano ak taskatu xibaar yi ngir communiquer ci li nga xam ne moom mooy situation juridique et judiciaire. Euh, bi am présentement Sénégal procureur généraux yi tamit euh, bu Ndakaaru euh, Tamba Saint-Louis Ziguinchor ñoom tamit dinañu topp tànku parquet bi ngir amal ay communication ndax communication yooyu nag li ko sabab mun nañu njoxtu ne actuellement nag Sénégal Euh, dafa nekk di vivre une situation inédite euh, daanaka euh, arrestation yi eh, bari na trop trop trop trop ay nit yoo xam ne nag am na loo xam ne dañu ko justice daf leen ko tuumaal yenn yi di arrestation ñenn ñi ñu nekk ci ay régime de garde à vue ñenn ñi nekk ci ay régime de placement sous mandat de dépôt bracelet électronique bi nga xam ne Euh, introduire nañ ko fi en deux mille vingt euh, commencé nañu ko mettre en œuvre euh, ñaari responsable yu Pastef daanaka ñoom ñoo ibbi baal bi mu di Waly Diouf Bodian Ousmane ak El Malick Ndiaye mi nga xam ne nag moom mooy chargé de la communication ñoom nag mu am tuuma yoo xam ne justice daf ko teg seen loxo lu ni mel nag sabab interrogation yu baree bare semaine passée gis nañ euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy département d'état américain euh, ci rapport boo xam ne def nañu ko ñoom ñu ngi ñaawlu la situation des droits humains au Sénégal may tàmbali rek sama première question euh, jagleel ko Ibrahima Ibrahima bu ñuy situation bi nan lañ ko mën a jàngatee est-ce que mën nañ ko tënk ci benn Euh, nguuru Sénégal dafa décider euh, wane toute la puissance euh, de de de l'État parce que ci seen ñoñ ñi am nañu yàgg naan vous avez trop laissé faire et que li Sénégal di jànkonteel dafa jot ñi nga xam ne État wane li nga xam ne moom mooy dooleem wala boog situation la boo xam ne dafay nasaxal li nga xam ne moom mooy démocratie est-ce que ci offensive bi nga xam ne am na est-ce que mën nañ ko jàngatee tamit euh, ne euh, da ngeen taxaw temm euh, ngir éradiquer yenn force politique yi ndax ñu bari jàpp nañu ne arrestation yi benn parti le cible mu di parti Pastef ci ñaari proposition yooyu ban nga ciy tànn jërëjëf soxna Maïmouna maa ngi lay gërëm ci question bi euh, di profiter ci occasion bi nuyu wale Amadou yow sax nuyu ma la tout à xam naa la jéggi rek waaye du ñàkk yëg parce que quand même vous avez du mérite et je tenais vraiment à te le souligner avant may may sori ci wax quoi euh, leadership féminin dont tu parles ci ñi ko incarné aujourd'hui ci nga bokk donc bokk suñu métier donc dama koy rafetlu et je tenais à vous le euh, publiquement ici devant devant devant les téléspectateurs cela euh, je crois que ni parfois il y a quand même une euh, une analyse ou bien une appréciation assez sélective bu nit ñi di dox parce que le département américain bi nga wax il y a quelque temps ces mêmes américains se sont prononcés ci mbirum Sénégal mais lan la ñuy wax nous avons suffisamment d'institutions à un moment donné bu ñu ci tolloo le Sénégal à le cadre qu'il faut pour pouvoir apprécier et gérer loolu ci yu mel nii donc souvent aussi baax na suñuy wax ñu boolee après yëpp teg ko ci mais dans mais tous les cas de tous cas nous avons notre on ne pas ci États-Unis lan la ñuy sur les grands principes mën nañ ci am ay idée wax on sait ce qui s'est passé récemment avec les élections américaines yi fa xaw ak ce qui s'est passé je crois qu'avec les partisans de euh, de l'ancien président là comment il s'appelle Trump jusqu'à violenté ci biir euh, je crois congrès bi la woon xaw ma euh, Capitole wala et par partout donc euh, en tant que sénégalais en tant qu'africain en tant que démocrate ñu bëri amoon nañ ci ay xalaat et le monde fonctionne comme ça nous ne pouvons pas refuser que ni nous sommes dans un monde boo xam ni on s'ouvre à l'extérieur nous sommes obligé de composer ak l'extérieur te ah, ñun di bañ li ñoom li ñuy xalaat ci ñun mais li ci am solo mooy est-ce que li ñuy wax conforme na ak dëgg gi c'est ça le plus important. Mais que mais dans ce cas Ibrahima dama lay ñaan rek tamit que vous soyez conséquent c'est-à-dire quand un organisme américain euh, génne rapport di félicité wu ni Sénégal géré Covid bi da ngeen koy brandir euh, quand des organismes internationaux di félicité wu sur la tenue de l'économie sénégalaise da ngeen koy mm-hmm. brandir. Mm-hmm. donc aussi bu amee un rapport du département d'État. américain buy ŋàññ façon euh, bi nga xam ne noonu la ñuy doxalee droits humains yi aussi war ngeen am élégance su nangu ko mais da nga ma coupé rek mais nous disons la même chose li ngay wax ak li may wax benn la dama la ne ils sont libres soit ngeen bàyyi leen pas à ignorer on ne peut pas ignorer monde bi ñu nekk doo ignorer kenn parce que le Sénégal n'est pas un truc isolé là vivre non nous vivons dans un environnement boo xam ni nous sommes obligés de tenir compte ci appréciation yi ñeneen yi à juste titre voilà que ce soit peut-être euh, voilà mais l'essentiel mooy ñun mënuñu ko ignorer c'est pas possible mais li ci gën am solo les comptes que nous avons à rendre euh, sénégalais lañ koy rendre d'abord mais li yëngu li ko yëngal moo ko ëpp doole parce que on parle des conséquence mais loo gis am na cause fan la ñu débarrer il faut partie de là pourquoi ces dernières années li ñuy constater di ko am surtout c'est lié à la violence pourquoi années yi passée yeggul woon yenn niveau yi donc c'est une analyse globale il faut pas prendre parce que tout simplement c'est le pouvoir évidemment la responsabilité première tout le temps ñi ñu dénk ça leur revient c'est normal parce que ñoom la ñuy rendre compte ñoom la ñuy demander ay compte ñoo war a jox mais lu loo gis mu yëngu nag am na lu ko yëngal te li ko yëngal je ne vois pas souvent nit ñi di ko di ko wax baax na ñuy analyser ñu dem ba ci racine bi à partir de ce moment franchement mën nañu bañ a yegg ci yenn conclusion yi en pensant que le Sénégal n'est pas un pays de droit le, les droits humains et cetera tout est relatif tout est relatif mais quand des gens marchent quand des gens refusent de se soumettre à la justice quand des gens et cetera et cetera on peut en citer à s'inquiéter donc mën nañ ci wax di ci wax soo ba ngoon sur des actes qui ont été posés qui puissent pousser l'État à agir parce que souvent dañu yaakaar ni c'est pour des parce que danga nga wax dafa am cible c'est pour des raisons strictement politiques en faveur d'un camp politique le président qui parce que man damay joxe souvent benn exemple rek souvent ci li fi xew fan yi yëpp pour vous d'état impersonnel sans color sans di moins incolore et inodore quand monsieur parce que <laughs> il faut il faut appeler un chat un chat quand monsieur Ousmane Sonko euh, quand même qui est une per forte personnalité politique, on lui concède ça, parce qu'il a du mérite. Moi, je le di c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un adversaire que je dis le contraire. Li may wax di Fadel moom lay wax il a du mérite parce que quand même il a eu à bousculer quand même bi ak tout ce qui se passe ces dernières années c'est mérite mais ce mérite là aussi euh, jour bi ñu koy arrêté bu doon dañuy wax conséquence politique wala impact politique wala ñoom ñi ko arrêté c'est-à-dire les forces de sécurité dañuy xool l'intérêt politique exclusif du président Macky Sall mais bi ñu koy jàppee téye ko noonu toj verre def yooyu su suis persuadé qu'il y a des de personnes qui ne l'aimaient pas ou bien ki ne lui qui le portaient pas dans le cœur wala bokkul woon ci ñoom ñoo xam ne le lendemain peut-être jàpp nañ ni non c'est un sentiment d'injustice boobu ñu dem jàppale ko l'image a le tour du monde tout le monde en discute ci wax mais est-ce que l'agent de sécurité bi tiim oto bi di ko xool na intérêt politique du président Macky Sall non il a fait son devoir au moment M bi mu koy def c'est l'État c'est les intérêts supérieurs c'est le Sénégal c'est l'intérêt général la xool mais bu doon c'est quelqu'un qu'on a téléguidé comme on a fait croire à tout le monde que ça a été téléguidé daf ko def parce que dañ ko ko sant mais xanaa dina réfléchir tuuti di attention l'acte que je pose là a des conséquences politiques ça peut bouleverser ça peut écorner l'image du Sénégal d'une certaine manière parce que gars yi dañu fort dañuy toog rek yor clavier yi ñii di dóor. mais mais ñëwal ci question bi directement. est-ce que état dafay exercer tout la rigueur de sa puissance. wala est-ce que am na ay dérives. d'abord d'abord état xejul ci kenn. puissance ak lu mu ci mënti doon xajul ci individu xajul ci kenn donc l' état n'a même pas intérêt à se retourner contre ses propres suñu teggee tànk su parle de l' état ça nous symbolise ñun ñëpp ci lañu ñu bokk suñu teggee tànk qu'est-ce qu'on parle qu'est-ce qu'on va dire après on a un état faible ñun defuñu seen jëlul seen responsabilité defuñu li ñu waroon def et cetera mais en 21 quand on a laissé monsieur Sonko mu jaar fi mu bëggoon a jaar gars yi di négocier ñii di waxtaan lii fii dugg fii génn fale jàppal fii l'opinion dugg ci la la presse ku ci nekk dugg quand le sous-préfet le préfet qui était là qui a excellent travail amoon na bi mais d'une certaine manière il a quand même parfois c'est parce que il y avait réalité politique il y a des réalités sociales yoo xam ne da nga ciy tenir compte et cetera en oubliant un tout petit peu la mission régalienne de l'État voilà ce que ça a donné 14 morts 14 morts est-ce qu'il faut répéter le même le même scénario la même taxaw foofu il faut choisir ñu taxaw foofu alors euh, Ngouda euh, situation bi bi am euh, on est dans un régime d'exception wala c' est tout à fait normal en démocratie c' est à dire euh, ñenn ñi waruñu obstruer la liberté des autres. jërëjëf alors man ma gërëm monsieur Ndoye raisonnement bi ah j' apprécie beaucoup euh, aussi ci yenn passage yoo xamante ni donc j' apprécie aussi l'honnêteté simplement euh, am na lu ma lu ma apprécié wul euh, mooy day walbati les événements. alors man j'aime bien partir euh, de la constitution du Sénégal c'est important parce que aussi bu ñu tëbee rek ne état alors que état boobu am na statut am na moom lu ko tënk c'est ça l'intérêt xam nga euh, sunu dëkk yi dañu tàmm rek tëb rek ne état mais y'a y'a y'a la société le Sénégal y'a l'état y'a les individus dañuy fàtte loolu euh, état du Sénégal tey mën na jot joteeg man ma yóbbu ko ci yoon daan ko moo tax toujours dañ may gis may bind naan la justice n'est pas un pouvoir d'État c'est un pouvoir de la société li koy wane mooy soo jëlee le procureur suba ay procureur war nañu wax et pourtant procureur yooyu il sont des avocats de la société non pas de l'État quand un juge rend une décision il le rend au nom du peuple sénégalais xool leen assemblée nationale bu jëlee loi président de la république su koy promulguer sax dañuy naan c'est une loi de l'État ça doit être appliqué comme une ne le procureur il est l'avocat de l'État de, de la société le juge il rend la décision au nom du peuple société peuple tudduñu benn yoon État kon nga xam ne État même moom dafa bokk ci biir comme sous catégorie léegi nag soo jëlee nag nga dem ci constitution bi nag foofu dafay am lu mu maye am lu mu cërale am ku nekk may la ko monsieur Ndoye ma jël rek benn aspect xam nga les gendarmes sénégalais ma leen di jaajëfal du ñu ñëw di toj oto président Macky Sall. parce que il est l'élu de la nation il est l'élu du peuple c'est ça l'intérêt gëdd googu waaye il symbolise quoi le gouvernement la présidente de la république mais constitution bi aussi ci côté le président Macky Sall dafa ne fii dëkk bi ñuy wax Sénégal dafa goo xamante ne ay banqaas ko ngànk am opposition bi opposé wu ñu mun a doxe dans le cadre d'un jeu loyal ñu dem ci article cinquante huit ñu ne opposition boobu dañu leen a cërale parce que dafa war a am un chef opposition boobu noonu ñu ne chef bi donc moom mooy màndargal opposition dafa war a am ay égards da ngay gis sax ñenn ñi naan way la loi sur le statut de l'opposition jëluñu ko leen non le président de la république il n'y a pas de loi organique relative au statut du président de la république et pourtant ça existe en France c'est d'effet immédiat donc boo amee un chef de l'opposition mu mel noonu da nga koy traiter avec égard. mais mais mais mais kan moo. may mun a ma ñëw ñëw kan moo consacré statut voté nañ ko ci référendum bi. mais jusqu'à présent amul occupant. jusqu'à présent am na polémique est-ce que c'est le chef de l'opposition parlementaire est-ce que c'est celui qui est arrivé euh, deuxième à l'élection présidentielle le débat n'est pas tranché aussi mais le débat a été tranché par le peuple sénégalais à l'issue du référendum du 30 mars 2016 naka le président Abdoulaye Wade bi ñu ko falee dafa indi constitution du 22 janvier 2001 ñu ngi ko adopté à la suite du référendum du 7 janvier 2001 alors article 58 boobu dafa doon wax l'opposition di wax son chef mais opposition bi mu doon wax c'était l'opposition parlementaire bi ñu ñëwee 2016 donc danga doon xal ni dañu en avant 2016 dañoo amoon une conception arithmétique de l'opposition soo waxee l'opposition parlementaire c'est-à-dire la minorité à l'Assemblée nationale euh, voilà du man Pierre Avril mooy wax loolu donc c'est une conception arithmétique le président Macky Sall bi mu proposé les 15 points dañu changé waale article 58 su ngeen xoolee dafa gën a dooleel sax cëral opposition ñu bindi la notion d' opposition parlementaire dem leen ngeen xool nekkatu ci léegi dañuy am une conception orga organique du man maay wax constitutionnaliste yi ñoo koy xaymaan yi donc day am une conception organique boo amee une conception organique nag li la koy mën a mandargaal lenn kese la mooy l' la plus représentative c' est laquelle c' est l' élection président présidentielle d' ailleurs su ngeen xoolee élection présidentielle 2019 dafa jot rek man j'étais sorti dans le journal Le Quotidien bi ñuy wax les cours de Ngouda Mboup ma ne c'était Idrissa Seck le chef de l'opposition parce qu'il était arrivé deuxième maintenant su ngeen liiree constitution bi daf lay wax ne la opposition bi ñu jàpp ne mooy opposé wu mooy bi opposé à la politique du gouvernement donc le président Idrissa Seck est parti rejoindre le président Macky Sall donc il n'est plus opposant de fait donc le troisième choix des sénégalais day taxaw mooy le président Ousmane Sonko au-delà de ça ay yeneen élection jaar fi mun naa wax mais damay jël rek l'élection de décision muy le référendum alors mu am dayo boobu cër boobu dañ ko war a nangul loolu moo am solo d'ailleurs xam nga lu tax le président usman Sonko bu amul woon dayo boobu noonu du ñu nekk ci crise bëggoon na woo ñëpp mais dañ koy wax. ki mu bëggoon gën a dajeel le président Ousmane ko la woon mais bi ñu amee mbas dafa dem pale avec tout le respect que l'on doit au président de la République mu dem toog ak moom ñu a et ban dama jàpp ni ça doit se passer comme ça dans une démocratie normale maintenant dañuy fàtte ne kii nga xamante ne mooy chef de l'opposition wala rek muy un simple membre de l'opposition dafa am ay droits article 8 article 10 liberté d'aller et de venir qui sont des libertés fondamentales fondamentales laa wax day wax ma public de liberté fondamentale dafa am solo l'adjectif est important liberté de déplacement constitution bi sax wax na ni sénégalais bu nekk biir Sénégal bu la neexee fu la dem neex dem wax na ni sénégalais bu nekk bu la neexee nga génn Sénégal dellu si parce que ay liberté yoo xamante ne la kenn mënu la ko xañ sauf nest pas nécessité yoo xamante ni nii mënul ñàkk je dama lay laaj rek lan moo tax depuis que le président Ousmane Sonko di am ay procès ñuy def blocus buntu këram est-ce que vous savez que c'est porter atteinte à l'indépendance de la justice il y a aucun acte délivré par la justice qui permet de le faire et en langage des droits de l'homme on appelle ça séquestration warul mën a nekk dans un état de droit parce que suñ ko ko defee ñun suba mën nañu fekk université ni ñu du ngeen génn may mun a mën nañu la fekk fii ne la doo génn loolu waruñu ko nangu parce que day indi insécurité juridique mën nañu ko def suba le président Macky Sall et cetera et cetera donc yooyu ay xeetu violation la beneen bi ci topp mooy man dama jàpp ni euh, dañuy wax ne euh, nit ku bañ a dem wuyu convocation mais man dama jàpp ni le président ma Sonko a toujours déféré aux convocations de la justice man gisuma buñ ci bañ en tout cas bu dee mars 2021 da doon dem ñu jàpp ko bu dee bërki démb da doon demaat ñu jàpp ko te yépp dañ ko bëgg a tracer waaw foofu ñu bëgg mu jaar est-ce que état du Sénégal wane nañ ni c'est garanti moom pourtant nangu dafa jaar récemment bi mu fa jaaree la moo fa dal un commissaire de police est venu lui dire ka kaay ñu dem bi mu génnee ñu dóor ko ay grenades yoo xamante ni même commissaire bi danoon wax ñan ñooy tiire bërki démb boo ku ñuy wax dàmbooj mais nee na dafa subir fii benn lan tentative d'assassinat amagul enquête gisaguñu la justice s'en saisit rien du tout est-ce que moom aussi de par sa sécurité amul droit ni ah bàyyi leen ma ma jaar fii beneen bi si topp yàlla a la règle du précédent le président Macky Sall bi ñu koy woo devant la justice dañ ko tànnalul fu muy jaar dafa a fii dem fu ko neex ñoom part Alé Niang si ñoo ko gunge mu dem toog avec courage pare génnaat le président Idriss Seck bi ñu koy woo dans l'affaire des chantiers de Thiès dañ ko tànnal fu mu jaar waaw mais lan moo tax tey jii nii ku mel ni Ousmane Sonko ñu bëgg ko tànnal fu mu jaar loi Sénégal dafa changé. donc en résumé. mais non dama bëgg a wax ni dama bëgg a wax ni fait yooyu yëpp li fi nekkoon même constitution bi la de. c'est la constitution du 22 janvier 2001 dara donc c'est quoi le problème est-ce que nit mun nañ ko ñëw loo xamante ni c'est la règle du précédent bépp homme politique bu nekk ci dëkk bi nangul nañ la ko moom ñu bëgg ko ko bañal et puis benn instant dafay mel ni dañuy sous-estimer suñu sécurité dañuy sous-estimer suñu force de l'ordre man damaa gëm ni mënoon nañu ñëw le président soo ko bëgg fu mu dem jaar bu ñu ko mënee jaloneel ñu jaloneel ko moom su mënee dem avec sa sécurité wax naa ni y a des gis nga dans un état très élégant bu ñu convoqué le président Ousmane Sonko mais le sous-préfet aurait dû le président Ousmane Sonko à un service de protocole pourtant dans certains pays état moo la koy jox mais le sous-préfet mënoon na ñëw ne ko dama lay laaj la veille wax ak son protocole invité leen ni leen fan ngeen bëgg a jaar est-ce que mun naa leen accompagner mais yooyu c'est des règles de jantal la démocratie c'est une affaire de gentleman de grande dame mais on ne peut nit nga ñëw nga ne ko lii ngay def par force n'a pas le monopole de la violence légitime l'état aucune violence n'est légitime sauf su fekkee nécessité la wala muy légitime défense. merci beaucoup alors may terminer rek bëgg a wax ne Sénégal en fait il faut ñu xam ne war nañu toll foo xamante ne la violence mun nañ ko apaiser maintenant violence yàgg na fi am li mu bëgg wax mooy ni mu mel nii dafa raw lan moo ko indi il faudrait pas que ñu daw responsabilité il y a des responsabilités à du côté de l'opposition bien entendu je suis totalement d'accord mais il faudrait que aussi l'État du Sénégal sache que dafa am ay engagements internationaux non seulement yu ñu signé ñun Sénégal mais fii sénégalais bu nekk danga am say àq ak yelleef. ñu respecté la ko. merci beaucoup alors euh, Mansour. waaw si Cissé. Ah. Euh, yow booy xool euh, réewu Sénégal euh, lan ngay jàpp ndax démocratie bi ñu ngi koy balafré wala ndax c'est un État qui prend toutes ses responsabilités euh, pour doxal yoon. écoutez soxna Maïmouna l'État a toujours pris ses responsabilités mais man j'ai le sentiment que dafa am ñaari Sénégal. ah bon Sénégalu 2011 ak Sénégalu 2023 près 2024 soxna si xoolal may ma ma lire la paragraphe bi en votre qualité de haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme virgule nous vous demandons d'interpeller dans les plus dans les meilleurs délais l'État du Sénégal. pour ces violations du droit à la vie ainsi que ainsi que du droit inaliénable de tout peuple à s'exprimer librement en réalité su ma mënoon génneel article de la constitution ak 10 librement et manifester pacifiquement pour le respect de la constitution yaa ngi dégg et de la démocratie kii Macky Sall candidat moo ko bindoon candidat à l'élection présidentielle 1er février 2012 mu ngi ko adressé woon à madame Navi Pillay Navi Pillay était le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme numéro téléphone bi mu ngi ci email am mu ngi ci soxna si dara changé wul dara changé wul président Macky Sall bi mu jotee ci affaire bi un yu njëkk yi dafa doon fortifier di encourager les luttes démocratiques à travers le mou euh, à travers le mouvement du M23 man maa ngi fàttaliku de source authentique waa M23 seen A1 c'est-à-dire euh, A1 ou euh, anniversaire président fekk ñoom dañu defaroon livre président wax seen trajectoire président def ci jënd 1000 exemplaires à hauteur de 10 millions c'est-à-dire qu'est-ce entre temps soxna si ñun dañu am chance su fekkee. man maa ngi fàttaliku soleil bi may liggéey le 22 juin xam nga l'élément déclencheur c'était le geste assez fort du député d'alors Cheikh Bamba Dièye bi muy takk boppam ci grille assemblée nationale juróom man rek maa nekkoon soleil si boobu ñëpp a demoon reportage yaa ngi dégg soxna si ñun ñu ngi fàttaliku président Macky Sall bu daan ñëw place de la nation am na ñoo xam dañu fa doon fanaan gis ko mu jaral leen lu nekk Marème Faye bu fa daan ñëw sol jean wala tubéy sol def li ñuy tuddee xaw ma queue cheval lañ koy wax di arranger foule bi soxna si yooyu c'est en fait man pour man analyser le président de la république jarul sori ay waxam mu ngi fi ay actes yi mu doon xeex mu ngi fi président Macky Sall voilà quelqu'un boo xamante ne bii il a eu la chance de cristalliser l'ensemble de ces luttes là pour être aujourd'hui président en de la république maanaam Maïmouna fa Faye présentement li am nii Sénégal musul am ci ay arrestation am mais que dit en fait El Malick Ndiaye El Malick li mu wax dafa ne un individu habillé aux uniformes de la BIP un individu la waxul sax une personne ñu jël ko bogo bogo ko woolu ko téye ko après takkal ko bracelet mais en en en réalité yow tu te demandes en fait tu te poses la question qu'est-ce que l'État veut en réalité parce que lii ça ne va pas arrêter. ni euh, comment dirais-je encore dissiper l'engagement des uns et des autres. Mais daf koy découper boo jëlee kaawu El Malick Ndiaye. ak Waly Diouf Bodian. waaw euh, mën nañu interroger wu. ci objectivable madame ci ci opportunité poursuite yi ñu engagé. c'est contre ñoom mais bu fekkee ne par exemple comme ni ko ay journaux enquête titré tey ne euh, dañoo mettre la main. Euh, ci une force boo xam ne dafa doon euh, programme des attentats euh, contre des biens publics contre des magistrats des personnalités de de de l'État est-ce que mun nañu comparer 2000 situation 2011 ak 2012 parce que 2011 kenn tere kenn masul tere même même même 2019 bi deux mille vingt vingt trois bi kenn terewul ñu dem place de l'obélisque mhm. kenn terewul ñu manifester. Mhm. mais est-ce que les deux situations sont sont comparables. soxna si li xew deux mille vingt et ak léegi. Mhm. est-ce que mën nañu ko comparer ak situation bi amoon. 2011 Thérèse Faye Diouf man ay fee lay wax journaliste ay fee la kii li may wax kii xam na ko monsieur Ndoye xam na ko Thérèse Faye lan lañu ko accusé woon. Thérèse la mën a tiital. kenn la mën a tiital kan. <laughs> nañu waxante dëgg. ñu rawale ko fanaanul seen kër li ma la wax boobu vous étiez journaliste non. xam nga bu dee ñoom li ñu wax ba suba tous les procureurs généraux fas yéene def conférence de presse bu dee li ñu wax c'est documenté par des faits ces gens la ils ne méritent pas notre patience mais dama lay poser benn question soxna si donc c'est pas mon rôle mais am na ñu fi jàppoon ay ñoom Amédia fan la ñu mujj lan moo tax mënuñu diligenté loolu mënoon bu doon dañ ko diligenté situer les responsabilités. bu lii amee sama xel dina dal mais mënuñu jël ay nit soxna si même si quelqu'un a commis un attentat dafa am loo xam ne code de procédure pénale kii li may wax du ma bàyyi ma fenn daf ko ko may ak ak yelleef mais mënuñu jël ay nit accuser leen lu toll ni asamaan ak suuf te kenn du ko atte loolu tamit c'est un problème madame c'est un vrai problème. donc c'est une situation anormale moom la ñuy man je pense que entre 2011 ak 2023 ñaari Sénégal moo am. y a un bicéphalisme Sénégal boo xamante ne li ñu doon défendre ba léegi ñu ngi koy défendre ak Sénégal boo xamante ne ñoom li ñu doon défendre étant entendu que ñu ngi ci beneen côté bi peut-être il cherche à maquiller et cetera et man laal fi may daanele mooy gis nga lii bu continuer fi Sénégal jëpp kenn xamu ko te gis nga soxna si dinaa la wax benn affaire y a ce que j'appelle la notion de la géo géopolitique immédiate gis nga Sénégal bis bu tàkkee Gambie day tàkk te sécurité Gambie ci loxo Macky Sall la nekk. parce que Gambien yi commencé nañu non non je te ñuy commencé di am ay crainte voilà par rapport à am ay crainte tey Gambie dama ne tey la fa nekk ci ay force économiques ak yeneen ak yeneen du ma bëgg du euh, dugg ci détail am na ci loo xam ne ci loxo président Macky Sall la nekk te soxna si Gambie bu yëngatoo dootuñu talati ay soldats MFDC di jël Gambie comme arrière base <coughs> ceinture de feu mu ngi fii euh, au Mali. gis na li nekk foofu de manière générale au niveau du Sahel donc Sénégal kenn kenn amul benn président que ce soit d'ici ou d'ailleurs bu am intérêt di gis Sénégal di dugg ci alors amat euh, Amath euh, gis euh, nañu plusieurs fan yi euh, plusieurs régimes juridiques la ñuy la gis Euh, dañuy gis ay placement sous mandat de dépôt euh, garde à vue yoo xam ne retour de parquet euh, yu dul jeex parfois pour de simples manifestations ñu ne ouverture d'une information judiciaire wala ñu tijji instruction parfois on se dit est-ce que décision judiciaire bi est-ce que acte bi ñu posé est-ce que jar na décision judiciaire bi yow ci sa gis-gis est-ce que mbir mi justice dafay outrepasser prérogative am est-ce que am na dérive euh, wala jàpp nga ne yow euh, c'est le fonctionnement normal euh, de la de la de la justice. bon merci jëf ci may mën ci ak ci kàddu fi jóg <coughs> li may wax ne da ngeen comprendre benn affaire réew ku nekk ak sa fonction bi ngay doxal bi ñu la dégg nga koy doxal journaliste bi fonction mooy génne information moo xam conséquence bi ko ci fekk mu assumé ko professeur bi toog juróom aussi bu amee ay not jël ay copiam corrigé note yi muy jox élève bi ku nekk moom moo koy assumer parce que moo xam ku nekk li muy def parquet dafa am benn mission bu ñu ko assigné c'est une mission boo xamante ni bi c'est pas wàccul ni ex nihilo ko c'est encadré prévu par la disposition du code de procédure pénale boo demee ci article 32 moo lay wax tous les prérogatives du parquet bokk na ci prérogative parce que moo tax parquet parfois dafay peser lourd ñi ñi di kaas naan parquet war nañu xoolaat dooleem parce que dafay pesir trop ci procédure pénale bi parce que daf koy ëmb fu mu toll nii fi ma lay waxee nii parce information mi am sax avocat yi nga xam ne ñi ñoom la jàpp seen avocat yi amuñ ko parce que pour wane la parce que bi muy peser ci procédure pénale lu ko may boo ne c'est le procureur de la république bi poursuivre du poursuivre sur la base de preuve bokkut ak juge bi nga xam ne ñu ko jox dossier na ko wëral preuve le parquet quand il ou bien ce qu'on appelle les faisceaux d'indices maanaam kii njortes naa ne wala kii am naa ay information ne am na leen lu mu cee laal wala mi ngi préparé nangam parce que gaaw code la mais ma lay ñëw teg procédure am da lay door gaa day yóbbu enquête policiers yi enquête xool ndax lam njort ndax yaa ngi koy def am na wala amul parce que benn affaire dafa am soit xam nga li may wax wax olof day wax naan tànk moom dañ koy taal baa ñu bang ko soit parquet bu liggéeyul ñu ne lu mu doon def fu parquet nekkoon ba ñi ñuy def nangam su jàppee ñaambaram ñu ne waaw wala mu commencé def ay arrestation ñu ne arrestation yi dafa jéggi dayoo mais bul fàtte ne réew mi politiciens yi nekkuñu fii dafa am ñoo xam ne li leen préoccupé du politique bi li leen préoccupé mooy seen sécurité personne seen sécurité bopp seen njaboot ak seen sécurité bien ñooñu aussi dañu bokk ci réew mi du politicien rek ñoo ko bokk wala militants yi politique bon parce que ci kaw loolu su poursuivre soit ñaar moo mën nekk wala ñett soit bu enquête bi ñëwee soit mu yóbbu information judiciaire ne gis ne peut-être li ngay def nii c'est des infractions qu'il juge graves il y a des indices graves et concordants comme on le dit qui sur toi mu ne gannaaw lii peut-être te preuve yëpp daje ne xaaral yóbbu ko fa la grand délai ñu àtte la ma dóor la ba ngal la dara pour nga mën a puus tuuti wala nga xof wa ilaa mu gis ne preuve yëpp dajewul wala infraction bi dafa jéggi na dayoo jéggi dayoo boo xam ne comme récemment infraction yi dañ modifié sur le code de en bi article 279 alinéa 1 2 2 tegal tegal tegal wasoon xam nga article yooyu mooy kii manifester boo laalee jàmm bu tàkkee sax parce que yaa ngi dugg ci délit de yaa dugg ci infraction de terrorisme donc état parfois infraction de terrorisme naturellement et obligatoirement dafay def information judiciaire ñoom xam ne du dem du dem loolu moo tax léegi parquet yi sax mu yóbbu la flagrant délit wala mu yóbbu la information judiciaire wala mu bàyyi la nga def ñibbi wax ils vont sortir et wax naa ko récemment ci benn télé nee naa leen fu mu procureur moo mën a génn wax parce que c'est parler parce que moom c'est l'avocat de la société ni avocat yee génne di wax ay maître Moussa Sarr ngi dégg leen ñu wax ak avocat défense yi njàpp ñu génn di communiquer parquet moom it puisque c'est l'avocat de la société moom it dafa war a génn wax arrestation yi fan la ko teg kan ak kan la la leen arrêté ñaata mandat dépôt moo ci am ñaata la yóbbu flagrant délit cest à bi mu wax arrestation fan la ko teg parce que aussi mënoo ne ci dëkk aussi jël ñëpp ku ne nga jàpp ba pare tëj ñu bari jàpp sa ñaamu topp dafa war a communiquer heureusement bi ma déggee tey si information ñu ne parquet bi dafay dafay communiquer ma ne ah man ko parc lekk sama lanc ci ci kaw loolu man procureur mun naa ko nangu mais seen bi euh, affaire Fulbert Sambou ak Didier Badji mhm. kenn xamul mbir mi nan la tëddee euh, Fadilou Keita mhm. ñu ngi ko détenir léegi mu ma deux mois mhm. kenn xamul nu nu nu nu mbir mi tëddee am na euh, le Mamadou Seck la ñu ñu fi jàppoon ne euh, dañoo doon mener une force spéciale dañoo bëggoon mener euh, des actions terroristes contre l'État du du Sénégal communiqué wuñu ci kenn xamul exactement ban bu la ñuy jël est-ce que suba communication bi dina englober toutes ces affaires la wala communication bi affaire yi xew mars ak la la nar a englober est-ce que on va pas rester euh, sur notre sur bon xam nga xool peut être xam ni amee opportunité poursuite am opportunité poursuite parce que mën naa gis professeur Ngoro tooñ ma tooñ mën a wen mu xam fi professeur dëkk fi muy liggéey yëpp mu ne ma amaat kaay ma ñëw mu ne ma topp ma nguuda ma la neex signeel fii nga dem maanaam classé ko sans suite loolu yoon moo ko may ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite su boobaa nguuda yoon may na ko aussi dootum voie de recours yoo xam ne mu dem pour attaquer attaquer ma comme citation directe le tribunal directement waaye là mu def plainte avec constitution de partie civile ce qu'on appelle quand la victime dévie le parquet pour déclencher l'action publique ci kaw loolu procureur nag moom moo ay choix peut-être moom mooy choisir la pertinence angle d'attaque yi muy demee ci communication parce que je pense documents yi ngay wax yëpp boobu léegi comme on le dit boule de ah. moom lay neex mu communiquer ci dossier bu ko neex mu communiquer am na dossier yu bëri communiquer communiquer yoo xam ne defu ci dara dafa bàyyi noonu mu jàll il est passé sous bon puisque ñoom jël nañ seen prérogative parce que ils ont jugé peut opportun peut dana dañuy génn communiquer peut ils ont gis nañ ne peut réew mi laaj na foo xam ne dañuy communiquer pour waxal opinion nationale bi xam naa peut-être rapport bu bu américain yi génnee am na ci peut-être benn influence peut pour répondre peut-être aux droits de ñi nga xam ne ñu ngi commencé di yuuxu di wax ne Sénégal actuellement liberté d'expression ak liberté d'aller et venir dañ ko écorné. yow yow lan moo sa opinion. Euh, est-ce qu'il y a des violations est-ce qu'il y a des dérives. Mm-hmm. Euh, nu mu tudd dans l'expression des des des des libertés est-ce que parfois vous n'avez pas l'impression que de la révolte. am na une volonté de de de mater de de brimer parce que quand même il y a certaines arrestations euh, ak certains placements sous mandat de dépôt aussi on peut s'interroger mais c'est c'est-à-dire c'est c'est discutable comme de part et d'autre a des excès dans l'opposition comme aussi de l'excès de l'autre côté mais dama ne comme on le dit il faut essayer de voir peut-être le juste milieu parce que nit ki mënoo fa nekk ci réew aussi ne kenn wax wala ku wax waxul loo xam ne arrangé na peut-être ñii wala ñaar dama tëj man leen il faut éviter je dis une fois ne il faut éviter de faire comme aux États-Unis comme la police américaine ñi ngi koy taxé noir yi noir nee nañ la les les les les euh, police américaine day jàpp ne les noirs sont les suspects habituels man éviter la ñu dem ba mujj gi dañuy jàpp ne l'opposition c'est les suspects habituels voilà suspects habituels yi buñ la ku def dara ñu leen seeti pour peut-être faire plaisir à quelqu'un c'est pas c'est pas comme un état ne pas comme ça dama jàpp ne ñaar il y a deux choses dans la vie il faut pas jouer avec on ne joue pas avec la liberté des gens on joue pas aussi avec la santé des gens c'est primordial dama foog ne nit dëkk ci réew am droit waxee fa am droit politiquer fa am droit defar toutes les actions yoo xam ne yoon moo ko may constitution moo ko may je pense aussi ki def ay mën a action aussi il faut savoir raison garder parce que loolu constitution aussi am na ay circonstances yoo xam ne su ko def ay restrictions de l'autre côté aussi état bi moom it suy arrêté arrestation yoo xam ne c'est des kii def na infraction yu légitime yoo xam ne c'est fondé prévu et puni par les dispositions du loi règlement du pays loolu daal la Amadou euh, dérive am na wala wala wala wala wala état Euh, dafay joue euh, li nga xam ne moom mooy euh, rôle régalien maanaam assurer la sécurité des personnes et des et des biens est-ce que l'État aujourd'hui mu ngi garantir l'équité en termes d'application des loi ak tous les citoyens waaw jërëjëf Maïmouna man nag j'ai may jiitu paaka ji mbaram di wax justice fa mu war a jaar ku ci nekk da nga war a assumer sa rôle def sa liggéey na mu ware yaa ngi dégg tey am na ay actes yu ñu posé nit yu ñu téye ñu ne est-ce que war nañ leen téye ni ñu leen téye dafa ëpp parce que y un euh, une arrestation à à tour de bras c'est-à-dire que chaque jour ñu ne jàpp nañ kenn chaque jour ñu ne jàpp nañ kenn mais da ngay xool aussi mbir mi fu mu dooree. xam nga dafa am antécédent am précédent mooy mars 2021 ñu wax sax ne état bi dafa laxiste dem bañ koy bett nit ñoo doon jóg ngir manifester di manifester seen solidarité à Ousmane Sonko c'est leur bon droit mais xëy na am nañu ca rax di dajji ay boutique Auchan rouge la ak vert je crois pas que ñu mun koo jaawale ak kër Sonko d'accord ñi jógoon pour défendre Sonko dañoo dem buntu këram ne kii kat kenn du ko fi jëlee kenn du ko laal ça ça peut comprendre en terme d'acte politique et de solidarité n'est-ce pas mais ña rax ca yëf ya ba yëngal réew mi yàq ay liggéey ay emploi yu bari yàqu ay commerce yu bari ñu taal ko état mënul toog nag naax saay croiser les bras ne j'agis après l'acte c'est-à-dire que damay xool daal pour bañ a yàqal nit ñi seen i droit damay bàyyi bu amee dérive ma soog ma soog a réagir non c'est une anticipation boo gisee bañ commencé anticiper ba léegi c'est vrai il y a plusieurs arrestations mais il moins de casse faisons le rapport il s'est passé quelque chose maintenant sëñ Ngouda am na lu mu wax sànq ci affaire toujours affaire droit de l'homme parce que moom defe naa nekkatul ci droit de l'homme ma nga Pastef <laughs> mon ami Ngouda <laughs> bàyyi na droit de l'homme yi quoi <laughs> il les a abandonnés mais c'est mon ami mais li ma bëgg a wax foofu mooy sànq dafa ne li nga xam ne moom mooy euh, liberté ah d'aller et de venir sëñ Ngouda Macky Sall boobu ngay wax avant qu'il ne soit président bañ ko fi convoqué dafa dem wuy ji waxul ne gunge leen ma il faut faire la différence d'accord mais est-ce que tànnal lañ ko itinéraire non maa ngi ñëw maa ngi ñëw sur l'itinéraire et tout ce que tu veux. Mhm. maintenant je vais te dama ne la ñi ñu fi convoqué amul kenn de Idrissa Seck de amul kenn ku ma sa wax gunge leen ma amul on était kenn neewul gunge leen ma dañuy jóg dem wuyu ji Karim Wade jóg wuyu ji xëy na militants yi mën na nañoo daw d'ailleurs Karim Wade bi ñu koy doon jàpp dañuy toog ba mu nekk brigade de recherche nga gis militants yi daw taxaw ci bunt ba ñu soog a yëg ne dem na mais ba muy dem du tàggu kenn keneen noonu keneen noonu y'a que Ousmane Sonko mooy def vidéo taxaw ne suba damay dem kaay leen ñu ànd donc y a risque de trouble à l'ordre public si on se réfère à ce qui s'est passé en mars 2020 2020 n'est-ce pas on est d'accord non bu fekkee danga def sa convoi dem génnuloo tàllaloo loxo defoo dara dugg nga sa oto tranquillement dem mais loolu jarul sax ñu lay tracer itinéraire mais bu dee da nga bëgg a pavaner bu dee da nga bëgg a pavaner wu parce que la veille def nga ko woo nga nit ñi ne gunge leen ma donc da nga bëgg attroupement attroupement non autorisé donc kooku kay les forces de défense et de sécurité ont l'obligation d'encadrer sa déplacement obligation parce que ñu ko encadré wul bàyyi la nga defee ko ni mu la neexee bu ci ay sàmba booy raxee defati tooxi doona mais kan mooy responsable ku dul ku dul état donc bu ñuy wax ak sénégalais yi nañ leen wax lee faits kuy dem wuy ji parce que dafa dem wuy ji te woowul kenn bokkul ak kawoo nit ña ne kaa leen gunge ñu ne la jaaral fii nga ne biir Medina lay dugg Fass Gueule Tapée ñu xam ne foofu day am attroupement ñu ne la jaaral fii nga bañ ñu door vitre bi génne la yóbbu vitre bu toj moo gën ay magasin yu toj soo ko koon arrête même lui bu defee loolu peut-être qu'il sa sent populaire xëy na kenn bañu ko ci xalaatam mais mun na am en sécurité par rapport ak fu muy jaar te même le statut de l'opposant de l'opposition boobu ñuy wax man dama ci d'accord am parce que benn affaire de femme man je rappelle c'était ci benn site ba ñu former le gouvernement Idrissa Seck bokk dama ne le chef de l'opposition c'est Ousmane Sonko les archives sont là. d'accord nga ci loolu. mais attends c'est une évidence. moi je suis pour loolu. parce que man sama baromètre mooy élection présidentielle. man sama baromètre. keneen nag mën naa am beneen baromètre donc loolu dama ciy d'accord professeur Ngouré. Ah. je ne vous coupe pas je voudrais vous poser une question parce que ça voilà. revient sur ce point bien précis. oui admettons que Idrissa Seck quitte le président Macky Sall. la dernière référence référence si c'est la présidentielle de il va redevenir chef de l'opposition. il reprend il reprend donc yaa yaa yaa yaay dégg. d'accord d'accord mais pour l'instant pour l'instant li il a rejoint le camp présidentiel non dama naan c'est vrai référentiel bi mooy. il va rejoindre l'opposition encore bientôt. dama naan c'est possible. et et la question. c'est possible non la question est très pertinente. mais mais mais non la question est très pertinente. mais il faut qu'on soit d'accord et qu'on fasse pas de pour l'instant c'est une conjecture pour l'instant. Idrissa Seck delluwaat ci opposition conjecture la li am les faits au moment te bu ñuy wax nii mooy le chef de l' opposition c' est Ousmane Sonko bu Idrissa Seck dellusee ñu analyser waat ko ñu xool mais pour l' instant moom la parce que kee teg génn na deuxième position dem fekk le premier donc troisième bi mooy mooy pouse c'est c' est logique c' est non non c' est normal et que ça s'est reflété même dans la popularité qu'on se dise la vérité loolu mooy dëgg waaye li foofu c'est pas c'est pas une question de positionnement mais dama bëgg a wax ne statut opposition boobu ba tax tey ñu war koo mën a wormaal d'abord un c'est pas l'opposant Ousmane Sonko qui a été convoqué c'est le citoyen sénégalais je dirais pas ordinaire qui a été convoqué par rapport à des accusations de diffamation donc ça demeure une affaire privée dégg nga baxal ma wax affaire u Adji Sarr idem donc moom la ñu woo pas Ousmane Sonko le chef de l'opposition si on lui concède ce titre kenn woowu ko en tant que chef de l'opposition on l'a convoqué comme Ousmane Sonko citoyen comme yow man dafa war a dem wuy ji mais wuy jiwul en tant que chef de l'opposition donc war ma bi ñu ko war a jox naan dañ ko war a encadrer jëli ko këram jox ko ay soldats ñu encadrer ko yóbbu ko tribunal pour la kon a fata il faut qu'on arrête non il citoyen la wax na li mu wax ñu ne ko indil preuve que que porter plainte am na droit porter plainte mais quand même qu'on soit d'accord nañ dem régler seen problème Amadou affaire bi ça ne concerne pas seulement euh, convocation Ousmane Sonko euh, actuellement am na ay médecins yoo xam ne teg nañu loxo teg nañu leen loxo. waaw mais laajagoo ma woon loolu. am na ay responsable euh, ay responsable politique. Ah. Euh, yu bëree bëri yoo xam ne teg nañu leen loxo. am na ñu ngi mébét mbiru commando spécial mais pour le médecin balaa ma ah. koy fàtte. waaw ah. pour yow nan ngay amee sa clinique nit ki ñëw dugg sa clinique indaale ay nitam yi koy saytu yow nga ne xamoo lañ ko fay defal sa biir clinique tey bu dara dara Ousmane Sonko kan mooy responsable du borom clinique këram la di doo ñëw kër jàmbur indaale sa mbindaan indaale sa fóotkat indaale sa toggkat indaale mais amul fenn foo ko na rek waa ji moom moom clinique am il est responsable lu fa mën a am ci kër googu tey moom mooy responsable lu fa mën a dal Ousmane Sonko moom mooy responsable donc moom li mu wax ne moom kat Ousmane Sonko dafa indaale ay spécialiste am ak ay médecin personnel am donc moom il n'est en rien consulté wu ko ña fay liggéey kenn kon xoolu ko loolu nu mu mënee nekk kon Ousmane Sonko na tëdd këram parce que souvent je crois pas que mu nekk hôtel na dem tëdd këram ñu fekk ko fa faj ko lu muy wuti souvent. non non xaaral lu muy wuti souvent donc ça c'est un fait donc pour ce médecin là bu dee tontu boobu la tontu naa la pour les autres hommes politiques dañu lancer ay messages. vidéo yaa ngi fi dañu taxaw di wax wax yoo xam ne man duma ci jaaraat. gis nga ko gis naa ko sénégalais gis nañ ko. parce que aujourd'hui l'image est devenue démocratique sa TikTok ngay yor wax li ngay wax ñépp seetaan nañ ko donc duma ci dellu si ku ci nekk lañ la convoqué yaa ko wax maintenant nag fa ñu jëm ak yow man duma ma li ma waxoon si njëlbeen du ma jiitu paako ci mbaram duma xam justice lan lay def ak ñoom mais man li ma intérêt moo intéressé mooy munoo nekk ci dëkk nga aspiré jiite dëkk boobu nga ne man lu ma neex wax te nag naa la yëgal leen ku ay ku ay bool fal maanaam tëgg casserole ku ay xeer fal ku ay saaga fal xeer bool saaga moo lay folli faut pas qu'on soit dans ces précédents yooyu di ko di di ko di ko di ko di ko di ko poser ça risque d'être dangereux je crois que vous aspirez à diriger un pays dafa am ay règles yoo xam ne danga ko war a respecter des règles démocratiques maintenant taxaw nañu ne ñun dañuy jàpp rek mais kenn fekkul ka tëdd këram wootewul à l'insurrection génn leen ci mbedd mi ñu taal ñu def lii ñu def la lële kenn wootewul ñu fekk la sa kër jàpp loolu amul. alors képp kuñ fi woo. non même ma terminer. vas-y. <laughs> képp kuñ fi woo dafa am loo wax léegi nag xam nga li bon mooy nga wax li nga wax ñu woo la nga ñëw toog ne noo waxewuma ko nii nee laa ko waxee di wëlbateeg di dëpp di pirñe noonu nit da ngay responsable la nga wax buñ la ko tegalee vidéo nga janoog moom yow xam nga ne yaa ko wax mais nag faut pas qu'on joue à se faire peur parce que ci lool lañ nekk actuellement au Sénégal dañuy nappaate nañ bàyyi yooyu ay affaire u nappaate ay dëkk bi day tàkk ak ay affaire yooyu yow dëkk boo xam ne euh, loo ci taal boo ko bëggee jiite loo ci taal dëkk buy tàkk mooy lan mais attends on peut s'opposer on peut gouverner sans pour ñu taal dëkk taal dëkk bi pour lan et puis boo waxee ñu naan dëkk bi dafa am tension de c'est tension a été c'est ça la vérité tension bii ngay gis nii c'est une tension fabriquée appuyée par certains gens yoo xam ne je vais le nommer ah je voulais pas le nommer mais vraiment c'est un grand frère muy Alioune Tine il faut qu'on arrête parce ah que Alioune non ay Alioune Tine mënuñoo toog di négocier pour ñu ay rocc ay plainte mm-hmm. non nañu waxante dëgg mënuñoo négocier au nom d'une pacification supposée de l'espace politique ou social nga taxaw nga ne non dañuy négocier pour ñu rocci plainte dans une privée non il faut pas qu'on mélange les choses gis nga tey bu amoon une tension par rapport au fichier électoral et cetera d'accorduñ ci lii dafa am ay inscription dafa am faux dafa ñu discuter ci loolu ay alintine bu ñu intervenir ñu mun ko wax mais il faut pas qu'on nous installe des des républiques de société civile merci alors euh, Ibrahima mais bon, oui, oui, Ibrahima Ibrahima est-ce que ñu ngi assu est-ce que état ci ni muy délivrer justice est-ce que mu ngi yemale ay citoyens am na ñoo xam ne dañu leen jàppee euh, pour des délits d'opinion pour des déclaration euh, est-ce que euh, bu ñu bëggee tëddee njaaxanaay tamit waruñu ko euh, élargir ci ñëpp maanaam képp koo xam ne quel que soit le bord politique bi nga bokk tenir nga discours boo xam ne jàpp nañu ne dafay salfaañe cohésion nationale bi jàpp nañu ne da ngay def appel au meurtre appel à la violence à l'insurrection nga bokk APR mbaa nga bokk Pastef mbaa nga bokk société civile mbaa nga nekk ak activiste est-ce que du responsabilité état mu tënk la ci yoon ndaxteg bu ñu jëlee kaawu El Malick nga xam ne dañ ko jàppee diffusion euh, de fausses nouvelles wala le cas du maire de Kër Massar nga xam ne dañ ko accusé euh, d'appel à l'insurrection et cetera et cetera du côté du camp du pouvoir am na ay nit yoo xam ne ràññee nañ leen def nañ des appels au meurtre Euh, wax nañu wax yoo xam ne euh, mën na mettre en péril la sécurité des personnes euh, visées est-ce que du loolu moom mooy li doyadal un peu li tax un peu ñenn ñi di jàpp ne affaire bi dafa am un ciblage boo xam ne dafa viser un parti politique bien donné. je may mën a jërëjëf d'abord xam naa ne il faudrait nga rééquilibrer tuuti parce que quand même je suis censé ici. parce qu'on a interpellé tout le temps le président la République. Ah, parfois ah munoo tontu ñëpp nag duñ la may <laughs> pas tontu sax je veux dire que parfois ñu bàyyi la tuuti nga xaw yaatal ci wax ji dina ci dina ci am solo ko mais il problème parce que je suis tout à fait d'accord sur la dernière question. tu ne peux même pas citer des noms moi quand par exemple Suzanne Camara par je ne suis pas d'accord et je le dis. daa ko wax fu mu ko waxee cest à nit ñi kenn moomu leen au Sénégal kenn moomu leen. moi je tout à fait d'accord et je ne suis je ne pardonne jamais à des gens comme ça ñuy taxaw publiquement surtout quand tu exerces yow la ñu dénk ñii dénkuñu leen tu n'as pas le droit de tenir certains propos parce que da ngay may doole gars yi ñu wax yenn yi moi je suis d'accord parce que bëgguloo tudd tur bi ma dinaa ko parce que c'est le seul pratiquement boo xam ne lañ xaw a dégg muy wax. ce n'est pas le seul il un euh, jeune. de euh, l'APR qui a à ce euh, la la la la la maison le domicile de wax. ce n'est wax te doo tudd ay tur. c'est-à-dire affaire bi dafay xaw am leneen lu muy niroo on est tous pour le Sénégal d'abord avant qu'on soit partisan wala bokk fi mais moi j'ai problème aujourd'hui dans ce débat parfois mes deux frères qui sont là en face de moi parce que j'ai des problèmes pour leen identifier leen fan la ñu bokk ak lan la ñu parce que monsieur c'est la vérité may ma tuuti non non dañuy waxtaan parce que parfois le porteur de message le porteur de message à 70 pour cent dafa war a crédible à telle enseigne que message bi doo war a mën a jàll su ma koy wax c'est pas parce que li ñuy wax nii c'est faux ou c'est pas faux waxewu ma foofu il faut assumer seen position politique parce que boo ma nee mon frère Mansour c'est un chroniqueur journaliste il est là pour analyser mais quand il parle vous avez le sentiment que c'est un militant de Pastef qui parle non dañuy waxtaan rek. non non mais laissez-moi euh, terminer. non dañuy waxtaan rek. Ah. dañuy waxtaan rek Mansour. vous êtes libre d'apprécier ce qu'on fait. laissez-moi librement aussi apprécier non. je n'ai pas dit je non je n'ai pas dit noonu la demee non je n'ai pas dit noonu la demee ak demeewul noonu. voilà non du ma ko bàyyi. il faut l'anesthésier non non du ma ko du ma ko bàyyi xam nga lu tax. Ah mais mais Mansour il a analysé il a donné son point de vue. non dama ni ah. l'analyse moom def na ko journalisme xam na lan mooy. analyse du discours xam naa ko. xam na luy analyse. mais analyse kay da ngay tëdd njaaxaanay ay fait lay jël non non je suis désolé je suis désolé le président Macky Sall. man moi je pense que de l'autre côté yéen la meilleure manière. xam nga man dama lay bàyyi posément nga wax ba pare parce que man du ma nag kenn. après da ngay bàyyi rek après ñu waxtaan. Mansour bàyyi ko le jour le jour le jour où je le président Macky Sall. kenn amul len lu koy reprocher depuis douze ans. bu boobaa jàpp naa ne yonente la. waaw jeex na. non may ma tuuti rek may ma tuuti rek dañuy waxtaan rek je parle du président de la République Macky Sall. Euh. la plus haute fonction dans ce pays. le jour où je dirai le président Macky Sall amul lenn luñ ko citoyen war a reprocher je dirai que c'est un yonente. c'est te ñun li ñu jàng. màggee ko mooy le dernier prophète il s'appelle Rasulullah Muhammad c'est la vérité mm. donc nit la comme tout le monde il y a ce que ñu ngeen doon wax ay dérives ak et ce que ça relève de ce que Diderot appelle les idiotismes moraux maanaam dans l'exercice de ton métier de ta fonction forcément il y a des yooyu def c'est lié à tout le monde mais le problème c'est pas ça quand j'entends mon frère Ngouda parler c'est très bien c'est un excellent théoricien il parle de mais nous on parle d'autre chose on parle de politique et lui il n'assume pas sa position de partisan de Pastef et c'est ça qui fausse le débat non c'est la vérité man dama bëgg bu ma jàkkaarloog nit on parle de bu duggee ci droit damay noppi du ma wax sax mais parce que ñooy borom xam-xam yi ñoo ko jàng constitution la fi indi développé yi affaire yooyu c'est bien parce que vous êtes le meilleur dans lu ma ciy warante ak yow que mënuma la citer benn chapitre ci bi c'est la vérité mais en politique les actes que vous posez sont condamnables Guy Bédès il est décédé c'est un grand comédien français bu décédé il y a deux ans dañ ko laaj qu'est-ce que vous pensez de la presse liberté de presse mu ne je ne à la liberté de presse que quand un journaliste dit ce qu'il pense réellement de son journal et dans son journal moi j'aurais bien aimé yéen ce que vous pensez réellement de Pastef et de ce qui se passe et de monsieur Ousmane Sonko ces dernières années ngeen wax ko ça donnerait plus de crédit. mais Ngouda n'a pas de journal non xaaral rek. Mansour ne peut pas le dire. non non waxtaan rek dañuy parce que vous avez dit que c'est des chroniques ah. non c'est pas des non non attention c'est des analyses. Ngouda Ngouda dañuy waxtaan rek. non may ma rek Mansour est journaliste. journaliste euh, dafa am distanciation critique tu dois être à distance xool lii ak na le nga wax fii bu ça ne marche pas je je le concept ça c'est des citoyens sénégalais ñoom ñoo dénk président Macky Sall ñoo ñu dénk non je suis d'accord hein? à tort ou à raison mën na wax lu mu xalaat sur le régime et sur le travail non, du président Macky c'est normal c'est normal les faits ne sont pas d'un seul côté. quand le président quand le quand monsieur Ousmane Sonko. il a des responsabilités. énormes dans ce pays. monsieur Ndoye. Hmm. il y a un autre débat. gis nga la force d'un grand leader politique c'est c'est l'américain Peter Drucker qui l'a c'est de savoir entendre ce qui n'est pas dit. Le président Macky est un leader, il gère un État. il y a des choses qu'on ne peut pas étaler sur la place publique mais vous savez très bien que ce qui fonde le parti PASTEF n'est pas conforme ak le Sénégal bi ñu bëgg a demee c'est pas du tout ça la philosophie Et un de vos avocats l'a dit. Il y de ces choses. Non, non, ce n'est pas grave, ça correspond à la réalité. On n'a pas l'Afghanistan, on ne veut pas avoir l'Iran, on ne veut pas avoir le Mali, on ne veut pas avoir ces États ici au Sénégal. Et vous savez très bien ce que je dis. Quand, quand l'État, l'État, non, xaral État du wax lépp ci mbedd mi jàppuñu n'importe qui ko toog sa kër rek ñu ñëw fekk la jàppaloo déedéet mieux vaut anticiper une étape c'est l'anticipation le sens de l'anticipation aussi dañu toog xaar yeewu fi ba yépp ni karaj ñu mel ni Mali mel yeneen dëkk ñu naan pourtant xamoon ngeen woon leen ko def non on anticipe on le fait et on l'assume si antenne bi cette TV laa ko wax le jour le premier jour bi police taxawee buntu kër monsieur Ousmane Sonko à Sacré-Cœur cette télé bii laa la ko wax ma leen arrêté leen les directs que vous êtes en train de faire j'ai dit il a du mérite mais il a parce que sa façon de faire ne correspond pas aux exigences de l'heure il y a une autre façon de faire et j'avais cité Talla Sylla des années 90 80 loolu laa waxoon politique da ngay adapté wu aussi c'est de l'intelligence je sais qu'ils sont intelligents mais s'ils écoutent des gens comme monsieur Mboup bii ci ni mu koy waxee théoricien ba pare qui n'a pas pratiqué réellement ce que c'est l'État dugg ci biir xam les politiques man booree bien aimé monsieur Mboup nga dem wuti base politique moi je suis J'ai travaillé dans une institution qui s'appelle RTS. Je n'ai jamais utilisé l'antenne contre le président Abdoulaye Wade. Pourtant, te membre fondateur de l'APR et je travaillais. foofu la nekk dama daan toog di def ba sama mbokk appaire di ma ci mere mais su ma ci pare maa ngi jandeer wuti base et j'ai clamé haut et fort mon appartenance à l'APR man loolu je dis dafay leeral débat politique nit ñi booy wax ñu xam kii wax kan la mais monsieur Ngouda vous borom xam-xam nga weddiwu ma ko de ma werante ak man sax ci affaire droit mais le message ne passe pas parce que c'est toujours orienté côté vers un le la paire c'est le président et on a l'impression que Ousmane Sonko c'est un saint on n'a rien à lui et c'est ça qui est dangereux alors Mbouda euh, man damay rebondir ci li Ibrahima euh, alors euh, il y a des participations à des manifestations non autorisées y a cette affaire d'empoisonnement bi nga xam ne euh, communauté internationale mu ngi koy surveiller état du Sénégal diligenter euh, des enquêtes pour tirer cette affaire la euh, au clair et dans le cadre de cette affaire la euh, plusieurs euh, médecins ci la ñu leen teg loxo il y a cette histoire de commando de de Pastef est-ce que yow en homme de droit doon nga doon nekk à l'aise ñuy agiter tous ces sujets-là au Sénégal et que l'État laisse Euh, amorphe et que l'État bañ a euh, réagir est-ce que une telle situation psychose boobu est-ce qu'elle est acceptable dans un dans un état de droit merci point de chute bi état de droit hmm, moi je vous concède vos propos de toute façon hmm, je fais partie des moi je suis une personne qui marche à visage découvert dans ce pays c'est moi bëggu parce que en fait c'est ce débat-là que vous entretenez sur les plateaux et qui n'a pas de sens moom laay wax il faut des débats de haut pour tirer le Sénégal vers la haut mais pas du désigner naa ñu fi ngeen bokk wala dara man bokk na man man ndaw laa ci li may def parce que je sais que je suis un jeune universitaire et c'est ma grande université bu may jàngale Europe bi ma nekkoon di jàngale samay diplôme Sénégal yi laa fa yóbbu di jàngale Ce n'est pas seulement Ousmane Sonko qui me consulte dans ce pays, par exemple. Beaucoup d'hommes politiques dans ce pays me consultent, Mohamed Lok. Je n'ai pas besoin aussi d'être conseiller du président de la République. xam naa lool état nag comme disait Vedel mun naa bañ nekk ci biir mais xam naa ko lool parce que jàngale naa ko jàng naa ko te aussi xam naa li ci ne te aussi je parle en toute responsabilité xam nañ ma ci réew mi fii ma wax gas su musuma wax bu déplacé mu musuma bañ a wax xam-xam aussi je vous le conseille dañu nekk ci état droit ma yokk ci démocratie muy deux titres de respectabilité yoo xamante ni Sénégal looloo tax ñu tuddee woon ko l'iceberg de la démocratie en Afrique xam nga am na loo xam ni boo ko jëlee ci état nga teg ko bëgg ko tënk rek mën naa ne mën naa la delloo wax ji ne la yow ci benn boor rek ngay wax aussi mais du noonu pourtant tout à l'heure bi may wax dama ni sa analyse am na lu ci bëri loo xam dama ko rafetlu c'est parce que en réalité booy. Euh, non non moom moom man dama bëgg nga déglu ma rek. parce que j'ai euh, souffert waaw ah, mais non man j'ai cité au moins quelqu'un quand même. Ibrahima déglu ko. waaw je je m'excuse alors. c'est ça en fait cest euh, soo may wax ni ma man dama war a bokk fenn au nom de bëgguma bokk fet j'ai pas envie de militer dans un parti politique beneen bi ñuy wax mooy ce que le parti Pastef a fait aucun parti dans ce pays ne l'a fait moom rek moo fi am une haute autorité de régulation d'un parti politique demal nga xool dans les grandes démocraties chez les républicains en France madame Anne Levade moo ko jiite woon bi France bi Copé ak Fillon amee problème la haute autorité moo ko réglé aujourd'hui Anne Anne Levade professeur de droit public elle est à la haute autorité de moralisation la vie boo demee France Guy Carcassonne à sa ñëpp ko félicité ñëpp a ko rendre hommage gauche droite il faut ngeen mun a taxawee noonu mais mënu leen yor nguur gi di def des inconvenances à l'état de droit et des sélections des illégalités. lan ngay woowee inconvenance à l'état de droit. merci xam nga mooy lan mooy yore nguur ñu fal la ci nga defe ni yaa ko moom patrimonialiser ko yow ak sa parti ak sa coalition di ci dóor nit ñi ba pare di ci noot nit ñi. loolu xew Sénégal may mun ñaata nit ñoo woote pour ñu rey Ousmane Sonko dans ce pays on a un parquet Amath le parquet est adossé à l'exécutif dans notre pays le parquet dañu koy jox des instructions à caractère individuel et général man bokk naa ak ay lël UMS UMS bind wax ne il faut que même yenn instructions yi ñu mën ko bàyyi barki dem madame Mimi Touré wax na lu am solo mi ngi ciy wax naan man am na instruction yoo xam ne mosuma ko joxe y a des gardes des sceaux yoo xamante ni peut-être duñ ci dugg mais loi bi tëddee noonu donte mu ngi fi rek muy mën na ne le système. c'est ça c'est un problème de système judiciaire beneen bi ci topp mooy ñaata yoon la ñu ñëw ki ngay wax ni parti Pastef ma jox leen exemple mais monsieur nous nous sommes des républicains des démocrates des patriotes tout ce mais c'est le président de la République benn waay ñëw en période de campagne électorale sàcc liste opposition daw ak moom président boobu jël waa ji di ko féliciter yéen ñëpp vous ne l'avez pas condamné cet acte la déggoo mu félicité ko da ko recevoir. non xam nga mais recevoir mais mais kooku kay c'est les honneurs c'est bra c'est en triomphe. may mun a mais bu ñu la recevoir boo defee loolu ñu recevoir la mais brandir nañ la en triomphe ma jox la beneen. ay nit yoo xam ni saaga rek la ñuy def yéen journalistes yi ngeen am problème toog ak président de la république ba muy wax day nommé premier ministre boobu ba léegi daf ko différé mu dem toog ak ñooñu à l'étranger jox leen ah mi ngi noonu di <laughs> yow soxla nga toog président ay saagakat mu toog. déedéet jox leen possibilité ñuy wax ak moom kenn waxul dara <laughs> mais beneen bi gën a. bees mën naa ko jox parce que inconvenance yi dama ci dugg ma jox la ñaata dossier yoo xamante ni moo concerné l'opposition dans l'affaire Djibril Ngom boobu mais yooyu askan wi apporte plainte fan la mujj devant le parquet dans le nord Pastef rey nañu militantam fii Mariama Sagna fan la mujj taal nañu parti euh, siège am fii fan la mujj Guy Marius Sagna mii ngay wax di combien de plainte la def xam nga moom laay wax ne inconvenance yooyu dafa am de la sélection des illégalités gis nga man je vis dans ce pays nit jaraluma may wax ko sama bakkan monsieur Ndoye il faut parce que yéen xamu leen nit ñi c'est ça votre problème il faut apprendre à connaître certains Sénégalais gis nga lu ñuy wax ni ça dépasse les hommes parce que les hommes passent les institutions demeurent vous pensez que ni ñun am nañu jot pour wax ni wéy Macky Sall dañ ko contrôler dañu nekk ci ay chapelle c'est mal nous connaître l'autre chose mooy bu ma wàccee ci état de droit inconvenance démocratique mooy lan loo xam ne da nga koo bokk ak ay nit mais benn bokk yaakaar seen benn ak ñaata activité la ñuy def kenn du ko kenn du ko kenn du ko kenn du ko interdire bërki démb gis nga le ministre de la jeunesse def rassemblement ak des jeunes fii côté cité kër góor gi taxaw kenn gazé wu ko kenn góor defu ko dara ay jeunes taxaw ci wetam ne dañuy dem taal kër Ousmane Sonko kenn ñaawlu ko waaye mais bu ñu nekkee si boobu dëkk yéen beneen bi ci topp mais ñu ngi wax ni fii nii dañu ibbi ay information judiciaire diw li ñuy wax et cetera mais y a un syndicaliste Dambou mu ne dañ ma bëggoon a rey ci corniche bii ñuy bi bëgg jaarloo Ousmane Sonko amul information judiciaire amul enquête amul dara pour le moment cela signifie que man mii sax sa ça pourrait m'arriver su ma jógee fii di dem l'autre chose maintenant ma dellu si si li nga doon wax maanaam da nga jàpp ni Sénégal daf fi am loo xamante ni daf fi bees nee naa la la violence dafa mus am dans ce pays mais dafa changé il faut ñu nangu ko ma ñëw ci loolu il faut ngeen nangul ni Ousmane Sonko c'est un phénomène muy lu wóor parce que da nga ko wax am loo ko xara benn maturité politique amu ko mais man jaaxal na ma yéen nit ko amul maturité politique ba pare yéen ci moom ngeen di xëy moom ngeen di gont fàtte ngeen emploi fàtte ngeen économie. c'est par rapport à fàtte ngeen finance. c'est par rapport à des fàtte ngeen droits sociaux. non il faut relativiser yéen fàtte ngeen problème mu sénégalais vous sortez tout l'armada qu'on a ko ci benn nit ji ngeen ko viol jiñ nañ ko lu ne. attention jiñ nañ ko lu ne. c'est-à-dire ça je ne man dama la déglu. bàyyi yëpp. man dama nga wax lépp li nga wax lépp damaa souffrir. mais c'est ma la démocratie du affaire de gentleman. gis nga li ma lay wax naan la j'apprécie ça se passe comme ça. dans les tribunaux quand le procureur bu waxee sax nit diw sax dañ ko war a sax condamné à mort aux états su beneen avocat bi jógee sax danaan merci monsieur le procureur j'apprécie noonu laa la ko waxee bàyyi ma rek ba continuer li ma la bëgg a wax foofu mooy il faut ñu xam ni ce pays nous appartient tous Ousmane Sonko doomu Sénégal la am yàlla lu mu ko may muy un phénomène politique xam nga bu ñu demee science politique sax dañuy wax objet politique identifié moom dafa dépassé loolu il faut ñu nangu loolu mu nekk ku méngoog jamonoom donte am na ay défauts comme homme politique yépp ah, merci donte am na ay limites comme homme politique yëpp mais nañu ko nangul dayoom gis nga nit ku nekk bu ñu la woowee tribunal ni nga tol ngay wuyoo ah parce que fii Sénégal la boo ko wanewul ñu ni kii ana mbokkam. mais Ngouda yeneen yeneen. non may mun a man li may wax dafa am solo. parce que dafa am lu mu wax parce que dafa ne Ousmane Sonko. bu ñu ko woowee bàyyil bàyyil bàyyil yan bàyyil ma ñëw bàyyil ma ñëw li may wax am na solo non vous me laissez terminer aussi. parce que man sànq ba tey dama toog di leen déglu rek. laissez-moi terminer après ngeen wax ma déglu leen. da ne dafa war a jóg wuyu ji ma ne la nit ku ne na nga toll ngay wuyoo gis nga fii au Sénégal même pour l'élection maa la ko expliquer boo ma daggee du ma la ma a expliquer Amadou s'il vous plaît de toute façon sama étudiant sax duñu ma dagg mais vous n'êtes pas mon étudiant on est on vis-à-vis on est ma mun a wax mooy mooy temps de parole aussi man sa man j'ai chronométré li ngay wax man enseignant laa jàngalekat laa bi ngay wax damaa jël sama montre xool li ngay wax. continuer c'est bien continuer. bon technique yoo xamante ne la man mënumaa dérailler si li may wax. on est dans la com <laughs> leen a ñëw tey. kooku nga ne dañu koy woo rek mu dem wuyu au Sénégal les gens n'élisent même pas les ma jox la ko comme consultance comme da wax parce fii. dafa am suñuy substrat sociologique ak nu ñu taxawee yow tey boo amoon sa frère tey tey tey mu am problème justice ñu woo ko. Mm-hmm. di nga ci dinga dem. di nga dem. Mm-hmm. même boo si wax lu was lu ak di nga dem taxaw. Mm-hmm. de la même façon Ousmane ko dafa am ñu ko bëgg am ñu yaakaar ci il faut ñooñu accompagner ko. xoolal appel bi ngeen di wax toujours dama leen di wax mais dans la constitution du Sénégal on parle de la. résistance à l'oppression et c'est un droit constitutionnel supérieur aux lois pénales pourquoi du ngeen ko wax. kooku c'est pas à de l'apprécier man li ma la mën a wax mooy il y a un droit qui est et tout sénégalais am na droit exercer ko loolu laay wax. gis nga man dama nekk may mun a bàyyi ma ñëw aussi. parce que man li may wax dafa am solo parce que dañ maa interpellé ça veut que su fekkoon ne sànq dama doon tontu débat bi mun na yàqu parce que on est dans un débat très civilisé ah, ngi waxtaan entre nous et man sama na solo beneen bi si topp mooy les arrestations tout azimut mais attention may mun mais il y a des yoo xamante ni nii mais ils se sont exprimés mais en fonction de leur liberté parce que xam lan mooy liberté démocratique mooy nga ñëw tey par exemple tu as une opinion boo xamante ni mun nga ko exprimer sans heurter sans discrédit sans infraction et pourtant am na ñoo xam ne li ñu mais jarul ñu leen ci jàpp am na ñoo xamante ni li ñu leen jàppee ba ñu demee mënoon lañ leen ci bàyyi xam nga lan moo tax am na ñoo xam ne sax jaa wax bracelet am na foo xam ne sax la justice da nga koy humaniser am na foo xam ne dañuy wax la nécessité même des peines parce mais mais en réalité nous sommes dans un droit pénal et c'est le droit de la certitude xam nga ni tey soo jëlee takkal ko bracelet électronique dafa graaw déjà yaakaar nga ni da mën naa daw yaakaar nga ni amul garantie de représentation de représentation pardon yaakaar nga ni infraction bi mu def c'est un caïd wala c'est un grand criminel comme on dit alors que ñii ce sont des hommes politiques gis nga lu may wax sànq. bracelet électronique duñ ko takkal violeur duñ ko takkal pédophile. oui duñ ko takkal trafiquant de drogue ah. donc c'est une façon pour, euh, pour d'humaniser d'humanisation de marque de considération non dama ne. bracelet électronique non dañu ne la bracelet électronique bañ nañ ko ba bu ñu la koy takkal dañ lay laaj sa avis est-ce que tu es d'accord ou parce que boo ko doon mandat tout tout fait. c'est li ma la wax dama ni la bracelet électronique bii ñu takkal ñi ñu takkal ñii dama ne la li ñu def mais boo ko xoolee dama ne la en fond mën nañ ko apprécier est-ce que c'était nécessaire. mais xam li may non très bien je suis je totalement d'accord le juge moom mooy apprécier lool la loi bi wax mais nous nous apprécions. Mais, aussi mais, mais, une situation mais juste une question juste une question quand un leader politique dit. magistrats yi nañu maytu seen bopp xam nañu seeni kër loolu est-ce qu'il exerce un droit à la résistance quand un responsable politique dit nañu dem lakk seen kër yi nañu dem déloger leen nañu dem def nii loolu yow nan euh, droit à la résistance la wala lan dama ne est que yow jàpp nga ne c'est une menace s'il vous plaît s'il vous plaît est que c'est est-ce que le citoyen en ce moment-là exerce son droit à la résistance face à un supposé oppresseur. non ya y a deux choses ci question bi nga ma laaj violence fu mu mun a demee nu la violence elle est complexe et multiforme dama ne bu mu ci mënti doon man je la condamne fermement ak fu mu mën jóge donc du droit à la résistance. non non bàyyil ma ñëw moo tax ma ne la question bi y a deux choses il y a d'abord la violence. et l'exercice du droit à la résistance c'est différent parce que nit mun na exercer droit sax fekk ba mu koy exercer boole na ci violence. c'est wala nit mun nañ ko teg violence mu jëlee ci moom exercer droit moo tax ma ne la ñaar yi bokkul bu ñu ko jaawalee par contre il faut condamner la violence d'où qu'elle puisse venir il faut ferme sur les principes amul xaj ak seen mais par contre lu may wax mooy wax bu ñu fi wax fi Sénégal état de droit la. la justice mën na ko éclaircir wax bu ñu fi wax maintenant est-ce que maintenant ci ay wax dans une démocratie parce que boo ñëwee démocratie dañ la naan c'est le bruit et c'est le débordement Paul Ricoeur wax ne la la démocratie la démocratie lan la daf la naan ce n'est pas synonyme de paix mais c'est synonyme d'apaisement démocratie moom mel noonu day am di bruit et débordement maintenant institution dañ la c'est l'ordre et c'est le cadre bu loolu amee nag dangay am dans un équilibrisme compliqué parce que boo ñëwee bëgg brimer nit ñi wala bëgg taxawee nen na mun nga étouffer les libertés. merci beaucoup beneen bi stop fu ma bëgg a rek nga may ma ko mooy li ma mun nga wax mooy on ne peut pas cibler un camp boo xamante nii lu mu def ñu jàpp leen alors que am na yeneen camp yoo xamante ni daf ñu ko bu lool loolu dafa am deux principes yoo xam ne dafa nekk dans la constitution te mooy les deux mamelles de la démocratie muy la l'égalité de la justice elle est rompue parce que benn camp rek la ñuy topp di ko jàpp on sélectionne des illégalités et on laisse des inconvenances à l'état de droit démocratique merci beaucoup alors Mansour wow. Euh, dans la situation actuelle lan moo war a nekk le rôle et la posture euh, de de de, de l'état parce que dérive yi fu nekk lay jóge non loolu kay kii yóbbaale na ma sax kii duggaale na ma géew hmm. mooy de part et d'autre de part et d'autre arrestation dañ ko war a sentir dañ ko war dañ ko war a sentir sentir waaw mais mënuñu jël benn camp rek on a l'impression que y a qu'un seul camp qu'on veut disséminer gis nga man li ma fi dégg xam nga lan la ban sentiment la may jox. Mhm. mooy le président n'est plus entouré. Macky ah Sall non non il n'est pas mal entouré Mac président Macky Sall n'est plus entouré. Ah loolu c'est ma conviction personnelle. beneen bi euh, dañ ma taxé de pastéfien quoi man dama lay wax. man non non non non attendez rek attendez rek man ma liberté. moi moi je m'inocule une liberté presque divine lu leer laa la wax maanaam man comme ni ko yàlla waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man du ma tooñ sama jaam yow aussi tamit bëgg naa ci sa njàngale nga moytuloo jaam yi ñuy tooñante man au-delà de ça j'ai une liberté presque divine 2017 bi ma xoolee président de la république à travers l'assemblée nationale mu digoon ñu rupture 2012 ba 2017 amul rupture 2017 moi deux mille vingt quatre su ma gisul lu ma xam man du ma fa dama yem tëdd nelaw c'est-à-dire moi une liberté presque divine loolu c'était une précision beneen bi man je pense que ni aujourd'hui il faut le dire du fait des élections ñi weesu la légitimité du président de la République est une légitimité qui est affaiblie soxna si xoolal élection yi xew nii ku la ne président wala Benno Bokk Yaakaar li mu am neex na leen dañ lay nëbb dëgg à l'Assemblée nationale aujourd'hui les forces ça se ça se ça se ça se ça se neutralise loolu mooy dëgg beneen bi xam nga le Sénégal au cœur defe naa liir nga ko xam nga président de la République dafa wax ni waa FMI dañ ko waxoon ne ko le train de vie de l'État dafa cher foog nga wàññi ko nee na ce jour-là je le cite de de nom man du ma fenal président j'ai failli perdre mon sang-froid nee na damaa éco nee na dama dama dama supprimer Euh, cinquante neuf agences yaa ngi dégg yaxanal ci cent soixante neuf milliards nee na loolu laa jël def ko ci agriculture def ko ci électricité ñëpp gis nañ ne léegi euh, euh, nu ñu koy waxatee coupure wàññeekoon bu baax a baax donc ñun on a pas intérêt di tiire par exemple sur le président wala di encourager opposition ñun dañuy wax li nga xamante ne mooy dëgg c'est-à-dire président aujourd'hui du fait de l'avantage comparatif bi mu amoon nga xam ne mënoon na jàngee ci ci ci valeur u Senghor yëpp vertu yëpp bàyyi fa ay safaanam jàngee ci Abdou Diouf jàngee ci Abdoulaye Wade nga xamante ne man pour man aujourd'hui président de la République débat bi ñuy wax nii dañ ko waroon ëppale sa suñu bopp mais malheureusement fi ñu ko doon xaaree dafa c'est-à-dire les libertés fondamentales président Macky Sall daf cee mobiliser ay nit ñu couvrir ci ba sonn mais xoolal fi ñu toll léegi soxna si xoolal fi ñu toll léegi c'est moom en li ko dal moom moo ko teg boppam ni mu ko tegee boppam mooy bi mu ñëwee jël affaire bi. dafa def acte trois de la décentralisation te président Macky Sall dafa am benn défaut bu nekk ci moom ñu baal ma ci kàddu gi bu nekk ci Poutine il aime faire le vide autour de lui c'est le vide mais c'est le vide qui a fait Ousmane Sonko bu mu defee acte trois de la décentralisation dafa def élection locale yi 2014 yaa ngi dégg deux mille mille 2016 ñu def réforme ñu dem élection deux euh, législatives 2018 ñu dem parrainage ak ni ko ko organiser jusqu'à présent <laughs> mais je pense que les chancelleries ne sont pas d'accord yaa ngi dégg léegi bi 2019 jotee wala bi 2018 bi mu def parrainage donc président il était inscrit sur un horizon presque indépassable ci diggante bi am na benn denc nag boo xamante ne am na ñu sax denc suñu borom la man xaw ma mais benn denc bu ñuy wax OS loolu foofu ko woon te man gëm naa ni bu bu noonu ni tey président dafay suppléer Ousmane Sonko mu toog impôt domaine génnam impôt et domaine ba pare il n'a pas perdu du temps man j'ai pas l'habitude de dire que li mu fi def kenn defu ko fi mais de fait on a vu que c'est quelqu'un boo xamante ne il a écrit au mois trois ouvrages relever qu'on le veuille ou pas le niveau du débat politique loolu aussi tamit au lieu ñoom ñu tontu ko ci xam-xam mais nan la def ci intimité am la ñu dugg pas sa vie privée intimité ci intimité am nañu ñu dugg moo tax moo ñu indil coow leeg loo xamante ne bii en réalité madame euh, kii may mën a Ndour on pouvait véritablement l'éviter concernant la posture de l'État ci situation yu mel nii moi je pense que état bi dafa war a commencer moom ci ëttam d'abord mais y a des gens aujourd'hui mais suñu waxee mais da xam ni état la ñu àndal moo tax ñuy wax ni ñuy waxee mais nañu waxante dëgg mais l'affaire Fulbert Sambou et Didier Badji Amath Suzanne Camara que de fois il a fait des plateaux pour dire que telle personne dañ leen a mais au moins à titre d'exemple nag ñi amee kaara ñi ñi ñi ñi ñi amee atte mais war nañ ko au moins déglu ko l'autre a fait un poste ne yaakaar naa sama frère kenn rey ko ñu denc ko ñaari Sénégal soxna si moo am Sénégal 2011 ak Sénégal 2023 mais mais est-ce war na tax tamit ngeen passer au silence euh, certaines déli dérives langagières. yu mën a mener à des conséquences graves par exemple depuis tout à l'heure dégguma ko condamné les cas yi nga xam ne def nañ ko ci Auchan yi sur des biens publics wala wala yow mm. euh, euh, li li ñu teg kambale jàpp nga ne yow mën a justifier soxna si yenn attitude dama lay wax lu simple man d'accord tey kas yi am Ousmane Sonko du génn publiquement naqarlu ko c'est pas parce que ñiy kase nga am impression que ni ñoom Pastef la ñu bokk ñi ñu yàqal APR lañ bokk c' est pas ça c' est des sénégalais comme, comme tout le monde loolu wax naa ko sur tous les plateaux madame Ousmane Sonko dafa war a génn de vive voix wax booy yi bàyyi leen daj déjà Sénégal dafa nekk en chantier de telle sorte que mais bu ngeen ko nit daj ku doon ma ne ku remplacer président de la de la République tu risques de reprendre à zéro est-ce que yaa ngi dégg bu baax li ma la wax mais problème bi mooy impression bi nit ñi am mooy c'est comme si. si de Pastef si tu es de Yewwi non duñ la may jàmm dama ko dégg euh, ni ngay wax de hmm, defe naa dama ko fi dégg en ce qui concerne les événements du euh, du mois de mars les événements du mois de mars soxna si événement de contexte la dafa fekk ñu tëj dëkk bi mu am lu xew cest yi aussi tamit gis nga président Ousmane Sonko dafa jàngee ci ay grand frère am mu tiire ci ay leçons moo tax muy opposé wu nu mel nii loolu kese la du leneen te président la république voilà quelqu'un boo xamante ne bii moom du wax benn opposant bàyyi naa la suñu borom xoolal rek man j'ai l'habitude de dire que ne il il en fait moom musul sax opposé wu parce que Abdoulaye Wade mi xam lan mooy opposition bi Macky opposé woo ak ni opposition mettee dafa ibbi les mais comme moom xamul opposition moo tax il n'a pas cette poitrine dilatée là qui lui permet aujourd'hui mais aujourd'hui avec euh, comment de je encore la réforme constitutionnelle de mais li ñu waxoon liy consacré véritablement le chef de l'opposition bu ñu ko defoon mais may mun a kon heure bi du ñu woon toog fii di wax affaire mel nii. te lii bu continuer man maa la ko wax fii de. wóorul sax 2024 élection am. merci alors euh, Amath man j'ai envie de situation bi ñu nekk nii bu continuer parce que aujourd'hui da ngay gis parfois booy yi euh, xale yi jeunes yi dañuy commettre yenn délit par inculture xamuñu bu ñu naree jël jeunes yooyu yëpp dugal ci kaso bi euh, affaire yii nii bu continuer lan moo nar a nekk conséquence bi est-ce que notre justice est préparée à faire face euh, nan la ñuy gérer la situation dans nos prison est-ce que rupture d'égalité parfois bi nit ñi bi sentiment de rupture d'égalité bi nit ñi am est-ce que loolu mënul yokk la la la la révolte et les dérives langagières. mais vous savez sur le principe. Euh, nous savons tous la justice c'est le dernier rempart contre l'injustice et donc mission boobu parce que justice mooy réguler dëkk. bu yëpp yàqoo yëpp tas justice mooy réglé justice boobu bu demee ba bañ koy jiñ wala nit ñi am benn pressentiment. wala mu submergé. waaw waaw non submergé waaw peut parce que submergé moom justice moom dafa submergé moom yàgg na parce que. personnel bi dafa na waaw. dépassé parce de Sénégalais alors que fii woo ma la sax magistrats mais avocats yi sax déjà ils sont dépassés voilà donc nga ñëw teg ci tout le temps y en cas normal arrestation yi nii su ma mënaat en cas de manifestation Euh, juge moom lii liggéeyam dana ko def loolu mooy liggéeyam quoi li ma saa tax ñu leen di fay pour atte police yi leen di ñu leen fay mooy sàmm kaaraange réew bu amee koo xam ne jaar nañ ñu placer la garde à vue placer la garde à vue yóbbu la ci procureur d'affaire la moom loolu seen liggéey policier tëjul tëjiwul moom arrestation mooy liggéeyam bu arrestation amee procureur bi information wax procureur diw de def na infraction bii wala doon naa ko a maintenant de ces 24 heures s'il a maintenant des indices graves et concordants qui pèsent sur cette dernière mu notifier ko pour 48 heures après bu enquête bi jeexee mu defeere au parquet c'est au parquet maintenant de libre maintenant voilà ubbi information yóbbu flagrant délit wala mu bàyyi mu dem yoonam wala ça ça dépend mais nañ xam benn affaire dama ne situation lu métti métti métti parquet ci liggéeyam lay des parquet liggéeyam c'est lui qui met qui mène ce qu'on la mise en œuvre de la politique pénale qui est définie par l'exécutif fii ñoo xam ne parquet dañoo yor procureur waaw ne danaa jot ay ordre ma ne ko mais loolu ça va sentir man xam la moo garaaw ci man. c'est le de la justice procureur Alioune Ndao waaw ne dañ ko daan jox ay ordre. c'est un ancien policier. ah sax dinañ ko. il faut chercher est-ce que c'est pas un ancien policier qui Allez mais c'est un ancien policier qui a du mérite. Je ne dis pas qu'il n'ait pas de mérite. Non, non, je n'ai pas dit il n'a pas de mérite. Ah, mais, mais, mais laissons Amath terminer. Je dis juste, est-ce que ce n'est pas mais, mais cela va de soi. Mais cela va de soi parce qu'on ah. procureur se l'objet de la politique. Il matait bien les étudiants et il y a... <laughs> Il, faut il, il était dans son rôle alors. Il était dans son rôle. Oui, chacun son métier. C'est un, en tout cas, c'est un bon paquet quand même. Vas-y. bon loolu man la man man la man quand j'entends un parquetier qui me dit qu'il reçoit des ordres sous son de, de sa de sa tutelle de man dérangé wu ma parce que ça fait partie des caractères du ministère public il y a ce qu'on appelle le principe de la principe de l'indivisibilité l'irrécusabilité et l'irresponsabilité parquet bon le principe de l'irresponsabilité du parquet sax mën nañu ko xalaat parce que léegi parquet bu la poursuivre ba bañ dem juge euh, wala acquittement total soo demandé indemnisation état bi lay kii la chef parce que administration c'est la hiérarchie sa patron am nga droit parce que am na yoo xam ne nous ne voilons pas la face parce que ci administration lu bokk les magistrats c'est les fonctionnaires de l'État du Sénégal ils sont soumis sous la hiérarchie directe du ministère de la justice lequel ministère de la justice appartient à l'exécutif donc qui qui dégage la politique pénale de de de, de du pays c'est l'exécutif par le biais du ministre de la justice ñu koy ñu mais mais est-ce que waru ko basé ci équité aussi. non non même bu fekkee ne c'est l'exécutif qui dégage la politique pénale même dëgg ñu naan le législateur ne saurait se tromper même tout aussi parquet politique bi na ko assumer su ko lu ko ci fekk mu xam ne lii la assumer quoi mais loolu mooy rôle am c'est comme si un policier bu ñëw ci théâtre d'opération parfois gis policiers ils sont débordés def ay ay ay ay erreurs yoo xam ne da leen di topp fi gis nañ fi ay policiers yoo xam ne bi ñu dem ci théâtre d'opération defoon maanaam préserver l'ordre public mën na fi yóbbu mais fu ñu mujjee poursuite judiciaire mën na fi yóbbu mais c'est ça c'est que parquet li muy def il faut mu assumer ko man bu ma gisee ki créé par parquet dafa naan la t'as t'as pas compris parquet loolu mooy rôle man xam la moo doon déranger may mun ministre de la jël téléphone am au ministre au juge bi directement na ko jàppal di wala nga bàyyi diw c'est ça qui me dérange rek parquet non ça me parquet c'est une euh, parce que aussi jàpp yi ñuy jàpp ñuy à dama ne leen parquet ba tey jàpp jàpp man dérange loolu mooy rôle

parti politique ci lañ bokk société civile ci lañ bokk donc toute cette masse dañ ciy bokk moo xam ñi bokk lu ñu wax wala bokk lu ñuy wax maintenant il arrive dans moment où dans pays nag parfois day am ay imbroglio moo xam politique ou juridique ou judiciaire phase boobu lañ mais dañ dem benn moment dañ gis ne affaire bi dana desserré wu mais actuellement l'ordre public c'est l'État qui est en manifester en faisant quoi en réta pour rétablir l'ordre public. par le biais de qui par le biais de ces forces répressives. qui sont la police la gendarmerie et le parquet. Ah, solution c'est ça moo tax le parquet day après c'est le juge maintenant mais le juge maintenant ce sera le bras de fer entre les avocats de la défense et le parquet. et le juge le droit. la justice doit aller jusqu'au bout. ou balaa terre. négocier bagage yi dañ ko war a leeral Sénégal. Mhm. xam nga le temps sax dañ koy répéter le président de la République a dit il a mis sous le coude des dossiers et cetera président de la République dafa am fu dooleem yem. je vais expliquer ça de manière triviale moins juridique et moins de juridisme pour nit ñi comprendre cest à ki nga xam ne moom <laughs> parce que sama professeur de droit ak moom <laughs> noo def mu dugg ci article bi mais je vais faire simple. je vais faire je xam nga mooy lan président de la république moo yilif ministre de la justice ministre de la justice moo yilif procureur hiérarchie bi maître doon wax sànq mooy loolu maintenant bu fekkee ne président dossier bi nga xam ne génn na ci loxo procureur dem ci juge d'instruction amatu ci kàddu nay leer amatu ci kàddu bu jógee ci juge d'instruction di dem ci tribunal juge di ko juger amatu ci kàddu fa muy mën a intervenir mooy foo xam ne mën naa jox toujours instruction wala orientation au procureur ou au ministre de la justice bu bu génnee seen loxo jeex na waaw bu génnee seen loxo non non ça c'est autre chose ça c'est autre chose ça c'est mais dama la bëgg a wax ne de manière triviale très simple que li ñu bëgg a defloo président de la république mooy intervention mooy sa question ne comme Alioune ni mu ko bëggee ñu intervenir ñu arrêté ay procédures mais dama ne la munoo am ku porter plainte sénégalais bu porter plainte beneen sénégalais président di ci dugal loxoom donc immixtion dans l'espace judiciaire bi ñu koy reproché mais boobu la ñuy am les preuves matérielles. on veut une chose et son les preuves matérielles mooy président yaay buur di bumi. dossier bi egg na fii pour jàmm am wa euh, waxal gars yi ñu tegg loxo donc le président de la république a peut donné injonction au juge non defal le président de la république peut donner injonction au juge te loolu mooy vrai nag immixtion de l'exécutif dans le judiciaire te loolu chaque fois ñoom dañ koy dénoncer les droits de l'homme la bu wax ñi nga xam ne par exemple état de droit daf leen intéressé mais dañ koy dénoncer mais ñooñu tey ñoo war a taxaw wax ak Alioune ne ko Alioune Tine xam nga lan la dossier bi ma nga ci loxo juge ma nga tribunal bàyyil tribunal def liggéeyam bul wax président ak ay dialogue ak ay ay concertation ça n'a rien à voir sénégalais bu porter plainte beneen mboroomu sénégalais la ñu dem tribunal nañ ko juger un point un trait amul leneen bu doon c'est c'est c'est c'est c'est une affaire boo xam ne par exemple offense au chef de ak yu mel noonu sax mën naa ko comprendre ñu ne voilà donc c'est c'est des délits à la limite politique mais li nga xam ne moom mooy wala des délits d'opinion mais mais koo xam ne dafa porter plainte ne yaa ma tuumaal lii nañ dem ñu leeral ko loolu amul lu ñu ciy négocier amul lu ñu ciy négocier nañ dem jusqu'au bout donc pour répondre à question il faut que ci dossier boobu mooy précisément Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang on doit aller jusqu'au bout c'est ma conviction quoi qu'il nous en coûte ma ne amul lum ñuy coûter ci coûter yaa bëgg mu coûter ñu ko non non non non defal ndànk rek non may ma ñëw non may ma ñëw là c'est important non là c'est non là c'est important non avant ta question là c'est important ku bëgg mu dépasser ko yaa bëgg mu dépasser ko parce que ba ngay jël ne am naa ay ay preuves ci diw ne sàcc la kenn sexalu la suukar diw moom am na droit raxas deram dem ci tribunal woo la fa bu la foo woowee da ngay wuy ji nga won ko ne la nga waxoon ca nga nekk moom moo nekkul ci dëgg moom sàcc la nga prouver ko Sénégal yëpp teg ci bët audience publique dañ waxante dëgg mais ñoo taxaw ñu ne non non non buñ ko jugé dëkk bi day tàkk kuy taal dëkk bi kon ki nekk en mauvaise posture dafa am dafa am nekk en mauvaise posture mooy taal dëkk bi kon parce que bëgg dëgg bi leer doo taal dëkk yow ngay ñëw pour raxas sa der nga bëgg dëgg bi am looy taal dëkk boo taalee dëkk dëkk bi du leer de dëgg bi du am kon nag kay taal dëkk bi moo am intérêt à qui profite la crime à ce moment profite le crime loolu la war a laaj donc nañu apaiser wu. Euh, instrumentalisation bi euh, du des deux côtés c'est-à-dire. dans cette affaire là euh, le pouvoir mën nañu am porox ndoll euh, aux conséquences politiques lourdes ci Ousmane Sonko du côté de Ousmane Sonko il il fait de l'instrumentalisation pour que nit ñi ne euh, dañ ko bëgg a barrer la route euh, est-ce que instrumentalisation bi du des deux côtés aussi. waaw non may mun a. finalement xanaa c'est de l'autoflagellation wala boog yaa jël yat bi jox ko sa ennemi ne ko dóor ma. dama ne ba ngay wax waxu ba koy juger ne diffamation la kenn saxalu la suukar nañu waxante dëgg may mun a bu ma taxawee fii ne sa télé bi li fi nekk yëpp da nga koo sàcc ñu woo ma tribunal yow nga porté ma plainte donc nguur day jóg arrêté la tax amul ak la tax amul ku ko xam nga wax ko man la xam laay wax dama ci principe laa taxaw dama ne dossier mel noonu dañ ko war a juger jusqu'au pour répondre à ta nañ dem jusqu'au bout amul aluntine amul keneen kenn du ko fi négocier. Ah, a on on finit là. mais vas-y vas-y <laughs> mais ma ma ñëw léegi. sànq dama fi dégg lu am solo ci sëñ Mansour. Mm. mu ne mosul dégg Ousmane Sonko mu condamner les cas. c'est vrai mais man j'ai un problème et ça je tiens à le souligner ci élément de langage Ousmane Sonko donc war na nekk euh, benn cas d'école parce que boo seetlee élément de langage am gàtt sa gàtt sa c'est-à-dire que ku dee sa yaay juraat tout est relativement à la femme je pèse bien mes mots tout est relativement à la femme. may ma rek ma ñëw. may may waaye ma ñëw rek même. ma ne xale bu waxee dara mag du ko répété. xale bu waxee dara xale waaye non même ma ñëw. ma ne defal ndànk xale bu waxee dara waa dëgg lu ma expliqué xale bu waxee dara te jubul mag da koy gàgganti waaye du ko répété. mais gàgganti na leen. parce que non non non waaye dee defal ndànk rek. sur sa même non même ma terminer. je termine par là je termine a prononcé xeex 44 fois. waaw de de de bàyyi ko mu terminer ñu terminer. je tout damay répéter waat dama ne gàtt sa gàtt sa laa dégg. ku dee yaay juraat. qu'il puisse euh, euh, apporter du bémol après c'est pas mon problème li ma dégg laa. ensuite euh, nu mu tëti euh, mortal combat dañ koy rey mbaamu rey ñu c'est-à-dire que élément de langage boobu man mooy sama problème c'est vrai que il faut que ñi ànd ak Ousmane ko

non parce que avec des si on mettrait Paris dans une bouteille. Mmh. on est d'accord comme <laughs> parrainage. voilà nga dafa am ñaari façon xeeti infraction moom. dafa am ce qu'on appelle les infractions privées am des des infractions d'ordre public d'ordre euh, maanaam de l'ordre public mooy infraction yoo xam ne dafay laal ce qu'on appelle l'autorité l'État les institutions. les, les biens fondamentaux très bien ak les biens publics appartenant l'État ak ba nga xam ne ñëpp ñoom ñoo ko bokk. infraction nit bu ko nga xam ne état moom mooy nekk boobaa partie civile boobaa par le biais du euh, de l' agence judiciaire de l' mooy poursuivre état mooy poursuivre pour laaj ay dommages comme partie civile mooy nekk demandeur mais bu nekk infraction privée la nga saaga ma wala nga xas ma wala nga yàqal ma wala nga sàcc sama alal su boobaa su la porté président rek mënu ko rocc mënu ci ngom kon ana droit de défense moom moom yaa ma tooñ mu yóbbu la police président di ko rocc kon nañ arrêté tribunaux yi parce que tribunaux merci mais Amath dama lay kii en tant que juriste c'est important pourtant le président de la république soo porté plainte de ministre waaw il faut l'autorisation du président de la république pour que parquet bi mën a loolu procédure beneen bi ci topp ma mën la wax ne la dans cette affaire Mame Mbaye Niang le parquet chargé de dossier lan moo ciy yoonu parquet bi yow tu dis que c'est une infraction privée mais pourquoi le parquet du visé n'est-ce pas la parole ñu tëj pour les rassurer non on est juriste on parle de ça da ngay wax en plus de cela Mame Mbaye Niang n'a pas porté plainte et ne peut pas porter plainte en qualité n'est-ce pas de personne privée vous savez pourquoi ah parce que on l'a désigné en tant que ministre gestionnaire du Prodac bon ça dama koy bàyyi avocat yi si beneen de toute façon bëgguma ci sax sori man sama perception parce que ma duggee sur les droits fondamentaux de procédure non man procédure laay wax mais dama lay wax rek ni la affaire bi am na fu mu jëm xaw ma mais bu ñu demee sama yoon nekku ci mais Mame Mbaye Niang dans cette affaire mënul ñëw ne man dañu maa diffamer man en tant que Mame Mbaye Niang parce que ku ci wax tu parles du ministre gestionnaire du Prodac. il ne gérait pas le Prodac. mais mais mais xam nga bon rapidement rapidement on termine. c'est que le pouvoir hiérarchique en droit administratif c'est terrain. mais professeur je ne veux pas dugg ca Mame Mbaye Niang la ou mm. comme di wax c'est un bataille bu ma ci dossier avocat. di wax voilà non non je parlais du principe pour leeral la entre la principe la doon wax leeral la ce qu'on ah, appelle ah. infraction privée infraction d'ordre public mm. cela doon mais pas faire personnaliser l'affaire mm. Mame Mbaye Niang mais dama bëgg wax mais Amath lu ma la bëggoon wax foofu mooy au Sénégal munoo porter plainte Ousmane Sonko su bëggoon porter plainte Mame Mbaye Niang tey pour que parquet bi mun ci dugg il faut parquet bi am autorisation non ça dépasse infraction Mame Mbaye Niang non bu mu mënti doon non écoutez écoutez Amath fii Sénégal infraction la. le ministre article de la constitution dama ne la article de la constitution dafa ne les ministres acte bu ñu mun a def dans l' de leur fonction voilà boo mën ci doon bu demoon sax nekk. mais kañ la nekk dans l'exercice de ses fonctions le ministre tant que démettre ko il est dans l'exercice de ses fonctions mais waxuñu pendant entre pendant et dans c'est différent bëgguma dugg ci loolu mais je veux dire que par là le président de la République mmh. dafa am prise sur le parquet tey Ousmane Sonko tey su bëggee porter plainte Mame Mbaye mais il faut l'autorisation du président de la République est que xam nga ni le ministre aussi su bëggee champ ah parce que oui moi moi je sais oh, parce que mais oui je sais mais il mérite pour moi man selon moi il mérite un man aussi je le connais parce que je travaille avec lui. oui moi aussi je le connais. bon si je peux me permettre sans vous couper la parole bien sûr on a beaucoup parlé des faits des causes. Mhm. pour vous laisser terminer justement moi j'aimerais bien vous entendre sur les conséquences une des conséquences majeures. la paralysie du On sait que les grèves sévissent dans le pays. Aujourd'hui, les vacances scolaires de Pâques particulièrement avancé on les a anticipées en raison ah, oui mais deux jours c'est quand même énorme <laughs> sur un programme scolaire oui non juste pour ñëwaat ci parce que on a parlé des arrestations tout azimut et c'est une des conséquences de toutes ces arrestations j'aimerais bien savoir aujourd'hui quelles sont les dispositions que l'État est en ils sont en train de vraiment faire les frais. Ils sont dans la rue. C'est une vraiment. très bonne question, mais mm -hmm. permettez-moi d'abord de rassurer mes frères qui sont, là. Monsieur Gouda, je vous conseille tout ce que vous avez dit. je n'ai jamais dit que vous ne devez pas applaudir au Moi, je ne juge pas par rapport à ça. à la, à la, visibilité du débat, que les gens sachent que on sait qu'il fait partie de la paire. C'est aussi simple que ça. Mais je ne parle pas du contenu. La deuxième chose, vous conseiller du président vous l'avez dit mais je sais que vous souhaitez être le ministre de la justice de Ousmane Sonko président de c'est un de vos rêves c'est pas grave et je vous qui m'en parlez et je suis très dans ma tête Moi, je, je suis très honoré. Vous ne pouvez pas être non, dans ma tête. Vous qui m'avez dit. Voilà, actuellement, je suis à l'université. Je suis, je suis très honoré d'être conseiller là-bas. J'enseigne le droit constitutionnel et je me va à merveille. Donc voilà, et je suis même à quitter ça. Donc, euh, ne me parlez pas de poste de Ne dévalorise pas quand ce que j'ai. Je suis très fier d'être conseiller du président de la République. Je ne parle même pas de Macky Sall, qu'il soit Macky Wade et tout. Je suis fier dans un pays qui s'appelle Sénégal d'avoir participé d'une certaine manière. Mais ne me prêtez pas certaines intentions. je, dis, vous serez très fier d'être ministre de la Justice de Ousmane Non, vous, vous ne pouvez pas mon cœur et mes ne pouvez pas. Mais c'est des vous le souhaite. Vous, aurez <laughs> comprendre ce que je dis. Mais je, termine juste. Non, parce que c'est des amis. Mansour, ce qu'il est en c'est son métier, journaliste. On a été dedans et tout. Mais Mansour, la chance que j'ai j'ai été aussi dur que vous quand j'étais de l'autre côté je parle de la presse mais j'ai la chance d'être dans la presse privée dans la presse publique et depuis deux 2004 d'exercer quand même dans les cabinets ah, voilà. et dinaa mën a relativiser yu bëri man su ma koy wax yenn yi xam naa ni xam ngeen état mais xam que théoriquement ak exercer bokkul man damay relativiser ci position yu bëri wax xam nga lu tax seen souhait bu amee bu leen yàlla dimbalee ngeen jël li ngeen bëgg dinañu retrouver waat vous allez me regarder autrement parce que di ngeen xalaat ni li mu demee ak liy dem ci bu bokkul ensuite y la cosmétique démocratique parce que am na moo bi ku ma ko emprunté ce matin quelque part il parlait de cosmétique politique au nom la cosmétique démocratique est que dañu war a jël bàyyi ay nit ñuy préparer ay cocktail molotov yow nga xam ko am toutes les informations nga ne da nga yor sa hôtel da nga yor xaw ma lan di def ay préparer ay attentat ñu di la bàyyi parce que tout simplement tu veux faire plaisir à un Alioune non je suis désolé Alioune doit être à équidistance. il ne l'est pas. vous connaissez Alioune je le connais je vous connaissez je travaille avec lui je vous moi je travaille avec lui. moi je travaille je vais chez lui je discute avec lui. mais je dis encore une fois. cocktail ay molotov ak yëpp gars yi duñ ko def dëkk bi li ñu ci yor ci renseignement je vous assure que duñ ko mënu leen a pousser bañ ko teg ko sur la plateforme mais le pays là est en danger et nous sommes conscients des responsabilités qui sont les nôtres et personne personne pour faire plaisir à des hommes de la société civile qui se disaient société civile parce que léegi c'est une société partisane des gens qui transforment l'université comme dit l'autre en permanence politique etc tout ça nous au nom de ça duñ ko nangu. nous allons assumer. toujours par s'attaquer à la société civile. les dictatures commencent toujours par s'attaquer à l'œil et à la voix de la démocratie. monsieur Mboup le président Macky Sall ne serait pas un démocrate vous ne rentrerez pas tranquillement chez vous dans certains pays am na yoo xam ne mënuñu am mais ça c'est des menaces. non non c'est pas des menaces. dans certains pays dafay fekk loolu. bàyyi leen loolu consolider ah mu ngi koy consolider lors de la révolution mu ngi koy ramadan ndax comment ils vivent le ramadan bàyyi leen di ko dëkkale man daal je euh, enseignement bi nag moom dama koy bàyyee oui yi nga xam ne ñoo ngi koy topp. non en tant que sénégalais. non je suis en tant que sénégalais dama leen ni xam nga su ma su ma su ma duggatee ci wax ji. Mhm. dafay indiwaat encore polémique. dama leen ni li yëngu li ko yëngal moo ko pëndoole. Mhm. s'il y a des menaces. Mhm. très très sérieuses sur l'ordre public. mais <laughs> l'État lan mooy waral anticiper. par rapport aux arrestations mais man la xale yi ku déconné. déconné nga nag. boo ma nee nañu wut yërmande ci xale yi je suis tout à fait d'accord je suis à l'aise par rapport à ça je suis persuadé que c'est pas entré mais mais quelque que soit alpha. quel que non non quel que soit les motifs. dañoo participer à des manifestations internes. bu dee xale yu jàngale rek di. ay xale la xale yu ndaw. je que ni. la ca war en terme non san ne les absout pas. ça ne les absout pas. mais mën nañu leen yaree neneen aussi dama la ni xale yi. Ah. ils n'ont pas le même place mais parce que xam nga lan moo tax. xale bi lan moo tax xale yi di def. mais souvent aussi dañ koy copier ci ense parce que quand ma ma on a vu une vidéo des enseignants qui se réclament de Pastef qui entrent dans les salles de classe qui désorientent les garçons di leen def propagande mu ngi mu ngi viral mu ngi ñëpp seetaan dañ ko mm-hmm. ensuite. monsieur Mboub vous avez parlé parce que bëgguma ci woon dugg parce que il n'est pas là bëgguma ci sori comme vous l'avez évoqué et vous nous avez accusé vous parlez de la voiture de monsieur Damboj nga ni dañ ko mais dafa voiture bi boo ko. mais j'ai accusé qui. non non vous avez dit que dañu que non justice justice waxu ci. je n'ai accusé personne non da ni justice. waxu non non may ma may non da ni justice waxu ci. j'ai dit a une tentative d'assassinat koo xam ne moo ko wane. loolu c'est extrêmement grave d'après ses dires d'après ses dires. mais parce que oto bi soo ko analysé. may ma tuuti rek may ma tuuti non non man dama yégalee. parce bi mënul daw. mënul daw loolu loolu c'est côté yi nekk responsabilité mais a a leeral. foofu la leeral depuis TFM. voilà lañ ko ba ci buntu kër président Macky Sall c'est lui qui parle. non mais de. mais ma tuuti may ma tuuti. mu ni tiir mu ngi commencé je l'ai écouté. Mm-hmm. mu ngi commencé à partir du camp militaire. may dóor ci dóor daan yi di dem à parti du camp militaire romb siège bi dafa naa fii la de mhm. continuer nii dem jusqu'à chez le président Macky Sall il y a pas de dóor daan damu dee fii mais nañu diligenté enquête oto ñu xool non ma ni amul doo daan amu fi

a priori. merci beaucoup Maïmouna a priori euh, c'est pour vous dire qu'il y a une tentative aussi de manipulation et de l'opinion aussi. merci beaucoup on euh, a le de le ci yow laa koy euh, indi aujourd'hui gis nañ Sénégal fu mu toll est-ce que situation bii nii c'est vraiment profitable au au pays te gis nañu ñu ngi waaj a dugg ci li nga xamante ne mooy exploiter gaz ak pétrole tey jii nii situation bi non seulement tabara mu ngi koy wax dafa euh, paralyser li nga xamante ne moom mooy njàng mi mais aussi économique Sénégal tamit daf ko paralyser en quelque sorte investisseurs yi nga xamante ne probablement war nañ mën a ñëw ci réew mi donc est-ce que situation bi war nañ ko mën a bàyyi mu continuer nii euh, fan la jëmee ak Sénégal. merci Adja et euh, j'aime bien la question et loolu dafay indi li ma wax début bi ne l'identité constitutionnelle sénégalaise repose sur une démocratie de consensus. ñun lu ñu amoon li nga xam ne mooy suñu identité démocratique mooy suñu concertation waxtaan parce que en fait l'espace public a toujours été comme ça acteur politique dafa war a am waxtaan xam nga le président Macky Sall a fait un acte de grandeur euh, dañu ñëw sur le pétrole le partage des ressources le bi jël initier un projet de loi société civile ni ñun d'accord wuñu parce que consulté wuñu mu ni ah dans ce cas danaan leen ko jox ngeen xoolaat ko ma jël temps man c'était le rapporteur général ici à Radisson et pourtant le président a dit que d'accord société civile je vais vous laisser. ça mais ça se voit que ce que nous disons c'est objectif si nous n'étions pas objectif du ma a wax lii. non non c'est-à-dire il faut ngeen bàyyi perception bi ngeen di am di ko wax pourtant. non non pour être honnête j'applaudis. vous savez. c'est un bon démocrate. ce que ce que nous vous disons c'est que ce pays nous appartient tous. donc beneen bi ci top mooy en ce moment. le président Macky Sall Adja. maintenant dafa waroon doon un rassembleur un juge au-dessus des partis. nee naa c'est l'élu de la nation c'est l'élu du peuple mais il reçoit l'opposition oppo étrangère et quelle opposition. pourtant Assemblée nationale avec sa configuration. les collectivités territoriales avec les configurations man depuis janvier vous savez depuis 2019 la bind benn article ni Sénégal dañuy dem vers un régime parlementaire d'alternance wala vers un oui parce que j'aime la théorie c'est mon et je le fais ma ne suñu deful ndànk nit dina gouverner Sénégal du am majorité depuis 2019 maa ngi koy wax élection locale am ma ne président na woo opposition bi discuter ak ñoom booba ba tey defu ko alors que nous avons une euh, euh, ceinture de feu une ceinture de feu ak situation bi nu mu demee nii hmm? euh, dinañ ko tontu mais am nga cëram mooy woote le reste les Sénégalais vont apprécier hmm. boo nekkee njiit noonu ngay doxale xam bi mu dafa ñëw recevoir député Benno Bokk Yaakaar man nee naa mënoon na recevoir député yëpp bi ñu paree ci élection locale yi mënoon na prêt parce que loolu dafa am solo dans le contenu local par exemple collectivité locale yi dañu am lu muy joué le président de la république tey jël na un décret sur les pôles emploi man def naa ci papier ni les raté mënoon na ci impliquer les collectivités territoriales parce que soo xoolee pôle emploi yi préfet moo koy jiite mais yooyu yëpp dañuy wax pour defar na boole tous les maires du Sénégal ni maire bi état bi du concurrent état bi du koo xamante ne da ngeen war a opposé wu ak moom dañuy liggéey parce que yéen en termes de dédoublement fonctionnel vous êtes même des agents de l'État parce que le maire non mais il ne l'a pas fait si non quand a installé écoutez l'association les maires de l'opposition mais écoutez mais le président mais gis nga nag pour pour pour être un démocrate il faut accepter les emmerdements de la démocratie mooy maanaam la liberté d'association elle est reconnue par la constitution yeneen maire moom dafa taxaw ni du fi amee est-ce que xam ngeen ni tey président de la république loolu su ko defoon tey mais kan la euh, euh, woo Marine Le Pen ba mu am problème nous sommes autour d'une ceinture de feu te loolu moo tax le doyen Alioune ñu war ko oui l'extrémisme vous réclamez pas de l'amitié de Goïta de non non mais dama ne dama ne le doyen Alioune foofu lañ ko war a remercier parce que su fekkee ne moom bu ñu expert des Nations Unies ñeneen di jël xelam euh, jël xam-xamam xalaatam pour mu kii su ñu ñëwee di alerte parce que kooku c'est de la sagesse qu'il fait beneen bi si topp nag dama bëgg a wax rek daaneel Adja lu nga wax nii dafa am solo c'est-à-dire un pays qui a du gaz du pétrole ñu bëgg mu doon un pays émergent ñu bëgg def en réalité de bons en avant il faut que les acteurs politiques se parlent et que pour que les acteurs politiques se parlent il faudrait la leur imposer Et le premier des responsables, c'est le président Macky Sall. merci beaucoup waaw jeex na yow yaa ngi fi suba noo. Euh, Mary Teuw Niane waaw. su jeexee man en aparté. waaw d'accord mais là mon frère mu ne dinaa ko poser juste benn question comment on peut occuper une responsabilité dans un parti sans débat je vous laisse voir en politique comparée ce qui se passe euh, vous avez la réponse suba demain on aura le professeur Mary Teuw euh, candidat à l'élection présidentielle euh, de comme invité et on sera toujours accompagné par Amath Amadou Euh, et et Mansour ñeme ma tudd nguur de. une ou deux fois. ñeme ma tudd nguur merci beaucoup. Tabara ma bàyyi la nga remercier invité yi. merci beaucoup je pense que le débat a été intéressant macha allah que yam na fi solo en espérant que li ñu fi wax yëpp dina jëmal Sénégal kanam en tout cas di leen remercier bu baax seen teewaay. mais <laughs> non en tout cas merci beaucoup. très rapidement ci kër gi dëkk jarul tàggatoo suba yaa ngi ci ah jarul tàggatoo. Ah, kon jeex na de ah. suba yaa ngi ci non jeex na parce que xaabaabal nañu sax. mais Amadou suba. suba yaa ngi ci loo publier ah, envoyé ma ko loo publier envoyé ma ko loo publier envoyé ma ko. Amadou lu mu fi tàggatoo rek débat suba bi waaw. la may wax li may bind moo niroo. ok j'ai pas ce problème mais pour le cas Alioune Tine on lui voue du respect mais dama ne la dans ces affaires là. ces positions vraiment sont loin d'être ah objectives. C'est tout à fait objectif. Il n'a Voilà, amis téléspectateurs. En tout cas, s'il ne mérite pas un excellent euh, première partie donc euh, voilà li lañ leen indiloon ci seen première euh, partie d'abord on se donne rendez